fay ci almaktum moo bind xasida bii di ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ayca mi ngi noonu mbubam Cheikh Ahmed Tidiane si al Maktoum ma doon tagg yonent bi noonu ñu dem xif bir rubuil bawaali أمام سيدنا محمد أصل لكل جمال من نوره كل بدن يبدو والشمس آها تكو لخي 我河南的。 Fas, Ahmad Tijani Asharif Al-Fatimi ñu Fas. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk yi ci biti dañ leen di ñaan ndax yéen a tax ñu tànt tànt bi pour ngeen toog ñu ngi leen di ñaan yéen ñépp ngeen ronu tànt bi yàlla mën na ci dëgg faj seen aaju parce que taxaw wër tànt bi amul solo bu ngeen toogee ba toogukaay fees bu leen neexee taxawóoru ko kon maa ngi ñaan képp koo xam ni nekk nga taxaw di seetaan nga ñëw dugg ci tànt bi di moo gën yéen ñépp nag laaw waaw yéen ñépp ñëw leen ci biir tànt bi ñëw leen ci biir tànt bi bu leen dëgër def leen ko rek jullit day oyof jullit moom buñ ko ne nàngam rek di leen ko wax baax rek da def ndax almuminu hayinun layin yenent bi ne jullit day yomb waaye jullit du dëgër jullit buñ ne ko defal lii rek mu daldi koy def bu dee lu baax la kon nag dugg leen ci tànt bi ngeen toog su ko defee kiy woy bu Alioune sàll ñëwee commencé waxtaan wi moom ñi mu ko séqal waaye yéen ñëpp dugg leen ci tànt bi ngeen jël chaise yi toog ci bu ko defee loolu mooy ngëneel su ngeen ko defee nag yàlla dana ci dëkk faj seen ajo amul benn sikki sàkk weerante ko moom ne seen ajo dana faju ku ci toogul nag ah yaa xam waaye daal képp koo xam ne jullit nga te oyof nga dugal ci tànt bi jël chaise toog waaw yaa ngi nii fees dell na ñépp dugg ci tànt bi jël chaise toog bu ko defee nag mu continuer wayam nga baag ñu àq bind We'll be right back. لايف يا ابو العباس ذاك ابو العباس الكبريت الاحمر والقطب المكتوم والبرسخ المختوم والهمام الافخم والعيلم العلم ابو الفيض السمداني احمد بن محمد الفجاني رضي الله تعالى عنه lañ jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ana ay sun. ليس لي أمل الحكايا أملي سوى المحبة وتعزم وفمننا على نبي وعلي أجمعين سلام ربنا دائما ما يا رسول الله وليس لي عمل ألهك يا عملي سوى المحبة وتعظيم يرونك على نبي وعلي أجمعين سلام ربنا دائما دف leen ni ci Yonent li kay yu sey yiraha sa defan li durratihi aminatan naqiyatan mabaranga rawna ganya ala nabi wa ale أجمعين سلام ربنا دائما يا رسول الله لكي يسيرها صدفا لدرته أمينة نقية سيد الحاج مالك لنا على نبي وعليه أجمعين اللهم ربنا دائما يا رسول الله في سعبي ما فينا المحتار خد حملان وخا لسهل بن عبد الله سيد الحاج مالك نانا على نبي والي أجمعنا سلام ربنا دائما يا رسول الله في صعبي يوم في المحتار قد حملان leen la suhul bunu abdul yow ma ma Maodo na ala waale أجمعين سلام ربنا دائما أجدف لنيتي ينن وهي رئيس الأهل النساء سرفان ونسبة وافتخارا سيد الحاج مالك نانا على نبي وعلي أجمعين سلام ربنا دائما كدنا بيشيانين ليلى العروبة حل درسي رجبين ثم المنى ينادي ما مولى مالك لنا على نبي وعلي أجمعين دين سلام ربنا دائما أنا صبيا تنبه أنا نور الحتم لكم حد حل في حمة من سيد الخادم مالك نانا على نبي والي أجمعين سلام ربنا دائما يا رسول الله تنبه أن نور الحتم لكم حد حل في همة من ما مولى مالك نانا على نبي وعلي أجمعين سلام ربنا دايم العام يا رسول الله أنا أتيرو بخير خير البخير وأفرس سجا داتي تكريما يا رونا غانيا الله نبي والي أجمعنا سلام ربنا دايم aja def leen nii ci yàlla ana atero ba xiro xayral buxuri wa afrisa sajada ati takriman ala nabi wa alaiha ajmaina salaam rabbina دايما أبا دفل نيجي النخل على الملائكة أبواب السماء فتحت كذا الجنان كرام لرو جنة المال على نبي وعلي كنا في نيالا نزيارة سكرة مكملة أها سلام ربنا دايما أبا سنگ با yaa nga Medina xaalal malaayiko abwaabu sama futihat kazal jinaan kiraam leeru jant xaalimaal benn ala nabi wa ali abdu asmauna salaama rabbina daiman sang baa nga Medina to xaalal malaayiko أبواب السماء فتحت كذا الجنان يرو ليرو جنت في يروننا على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما أجسن لخوتي أنن وكان لم يسقر بالجن جبرنا كجخ آه يا سرفنا فنال يا جركل يا جركل وكان لم يسحر بالجن جبريل فجفا يا سرفنا فنال وبك سيدنا محمد سلخ شكا إسارفنا إسارفنا وإسارفنا وإسارفنا وإسارفنا فنال يا جركل يا جركل sarafna wa ku bëgg sëriñ Babacar sa loxo ca kaw sa loxo ca kaw ana muhammadu rasulullah ku bëgg Alaaji Amadou sa loxo ca a isarafuna sunu loxo yi ca kaw ana soppe Serigne Fallou Mbacké yi dawara yàgg fanaalal tudd Yàlla tudd ca aw turam sarafuna di tagg di way di kañ Rasulullah di sargal Serigne Babacar ku bëgg Serigne Babacar loxo ci yoneen sarafuna Kumba samba yoneen sala xajab ku dina bi Cees gi fii la ñuy waye yoneen te bi sarafuna ku sopp Seydina Muhammad loxo ci yoneen sarafuna ku ci def ni siyaare yoneen sarafuna fanaalal Sarıyan tëgg ca aw turam saraf na di tagg di way di kañ rasulullah di sargal Serigne Babacar Moustapha jara way ba dee Moustapha jara ko loxo ca kaw Moustapha jara way ba dee ku soppi yónnee nit yi bi sa loxo yi ca kaw ku sopp Ababakar Omar Ousmane wa ku sopp Halima doon amal yondaluwa ku sopp Halima doon amal yondaluwa yaa Amina mooy yaa yondaluwa ku sopp Sëñ Babacar sa loxo yi ca kaw ku sopp yonent bi sa loxo yi ca kaw dafa ni mu jar na wayna la jaraka jurugéen ñi saraf na sayyiduna muhammad ana sappe allah ji fallilo di sarafna fanaalal karama kadula ko sarafna ku ci def ni yàlla nga ziyaare rasulullah di sarafna fanaalal acca sunu loxo ci yonen summa bana aw fi wasahudur loxo yi ci kaw saaba yàggu loxo yi ci kaw saaba yàggu Abubakar saaba yàggu ayna Aliyu saaba yàggu kuna bi jaral aca kuna bi jaral Muhammadu saaba yàggu kuka ci jaral ana soppay Muhammadu Lamin kuna bi jaral soppi Seriñ Babakar Si görelim. kumu jaral loxo yeesa ana soppay Mamadu Abubakar Omar Usman aliyoy badorosa aliyoy badorosa bu loxo joge Mamadu bu tànk joge ñu nida bu loxo joge Mamadu bu tànk joge Mamadu ku ka ci jaral Mamadu soppe Maam Ibrahima ma loxo ca kaw ku ne di Ali soppay ya rasulallah ya rasulallah ya rasulallah ya rasulallah waaw waaw waaw yaa rasulallah yaa jara màggal ana ñi bëgg na tibi ya rasulallah ya jara magal ana ñu bëgg yonent bi ya rasulallah ya rasulallah ya rasulallah ya jara magal ana ñu bëgg yonent bi ya rasulallah ya rasulallah ya rasul رسول الله يا رسول الله يا جرى ما أني بقرة تبي يا رسول الله وقد النبي من دي الله بكل يا رسول الله يا جرى ما أني بقرة محمد يا رسول الله وقد النبي من دي الله بكل يا رسول الله يا جرى ما leen ñu màggal tibi ya rasulallah jug leen jug leen ñu màggal yeneen ya rasulallah yaa jaarama ga aji bëgg na tibi ya rasulallah turam dafa neex ya rasulallah woo ya rasulallah yaa jaarama ga aji bëgg Iran daw yaa leen gën yaa leen mën yaa leen raw sama yonent ya rasulallah woo yaa jaarama ga aji ñi bëgg nañ tibi yaa leen gën yaa leen mën yaa leen raw sama yonent yaa rasulallah yaa jara magal ñi lay caricature xamuñu la sama yeneen ya rasulallah ya jaraman añi bëgg na tibi o ñi lay caricature ñi lay ya rasulallah ya jaraman añi bëgg na ya rasul رسول الله ومحمد النبي يا جرم الرسول buñ la xamoon duñ la ñaawal sallallahu alayhi wa sallam yaa jarama wa adi bëgg na la ko jagal yaa jarama ana tafa iray oo buñ la xamoon duñ la ñaawal sallallahu alayhi wa sallam yaa rasulallah yaa jarama kan yonent bi yaa ñu gën lay yaa ñu gën baay ku ci dàkku sa loxo yi ca kaw yaa rasulallah yaa ñu gën ndey yaa jara màggal su ma Moodu Lamin yaa ñu gën ndey yaa ñu gën di nabi yéen laay bi groupe yaa rasulallah loxo jakaw yaa jara màggal su ma Moodu ay waay yaa ñu gën ndey yaa ñu gën laay ku ci dàpp sa loxo yi ca yaa rasulallah yaa ñu gën bay yaa ñu gën bay ku ci dab ko fa loxo ca kaw yaa rasulallah yaa jara magal ah mu ñu gën bay yow yaa ñu gën bay woo moo ñu gën moo ma gën bay ku ci dàppoo sa loxo yi ca bëf yaa rasulallah yaa jara màggal wàllu diina bi moo ñu gën moo ñu gën bay ku diina bi yillaay bi yaa rasulallah Muhammad yaa ma jara magal ku fi gën a bëgg yonent bi loxo ca kaw loxo de bayra bi yola ya rasulallah yaa jara magal ah, sopp yonent loxo ca kaw ku di nabi yillay bi dul ya rasulallah yaa jara magal ka tëddi ca Madina waay waay waa di ya yaa rasuulallah yaa ya jaraman ana ñu bëgg TV man de maa ku bëgg Seydina Muhammad jugal taxaw ñu màggal Seydina Muhammad xabru baa nga Madina ay waay Madina yaa rasuulallah جرم خبر باغ مدينة واي واي مدينة يا رسول الله يا جرم محمود يا جو خملي محمود يا جو خملي يا رسول الله yaa jarama ale bi seen xaaj man sunu maam moo ne yaa fi amal gamu topp fi gamu ji yàlla ko ah yaa rasulallah woo yaa jarama guddi nabi yéen laay bégal yaa yéen laay bégal waayal yaa rasulallah waayal ee man di yéen laay bégal Omar waayal yaa rasulallah bu guddi jotee man ma way la yaa rasul mi Abdalaay ja tudde Abdalaay ja ibnu Abdalaay ji ibnu Abdalaay ji ibnu Abdalaay ji tudde Abdalaay doomu doomi Abdoulaye ji doomi أنا دومي أنا دومي أدلا دومي أدلا دومي أنا دومي أدلا دومي أدلا دومي أدلا دومي أدلا دومي أدلا lórí ọ̀dọ̀ là ń gbé lórí ọ̀dọ̀ là ń gbé lórí ọ̀dọ̀ là ń gbé lórí ọ̀dọ̀ là ń gbé. Ìfọ̀tò sídùnà Mùhàmmad jùgọ̀tà xaw ma gọ̀lù yẹn lẹ́nu jùlọ́nù ma gọ̀lù yẹn lẹ́nu jùlọ́nù ta xaw ma gọ̀lù yẹn lẹ́nu lórí ọ̀dọ̀ là ń gbé. Àti jùlọ́nù ta xaw jùlọ́nù ta xaw ma gọ̀lù yẹn lẹ́nu lórí ọ̀dọ̀ là ń gbé. lórí ọ̀dọ̀ láìjọ lórí ọ̀dọ̀ láìjọ. Amina tó yà ìjọ Amina mọ̀mọ́ ìyá yòó sọ́mọ yóò mẹ́nu. Amina tó yà ìjọ Amina tó yà ìjọ Odùlọ tó yà ìjọ. Àbá këru Omar Ousmane Ngom ñooy saaba yee doomi oto lay jee doomi ku fi gën a bëgg Seydina Muhammad jugal a yëkkati loxoy jagaw ku yëkkati yëkkati yëkkati yëkkati yëkkati loxoy yëkkati leenu loxo yi ca kaw ku sopp Seydina Muhammad yëkkatil sa loxo yi ca kaw ku sopp Seydina Muhammad ku mu jaaral loxo yi ca kaw ana waa kër yónneen yëkkati leen loxo ca kaw ana waa kër yónneen yëkkati leen loxo ca kaw ku sopp Seydina Muhammad yëkkatil sa loxo yi ca kaw ana waa sofena bi sofena bi laay wayal sofena bi laay wayal sofena eh, ana soppe ira soppe ira loxo ca kaw ana ana waa balabe waa balabe yéen laay wayal waa kër daa gonjoon yéen ويل وامر وامر لا ويل وصب سيد الحاج مالك يقتل سلا خيدته وصب سري بابك يقتل سجار له وصب سري بابك يقتل سجار له انا صب يسين فالو بك مجار رسال خدك انا صب يسين فالو بك مجار لجوغل تاخو انا صب يسين فالو بك مجار لجوغل taxaw ana saw bay sëñ Fallou Mbacké jug leen taxaw waa balaag bi yéen a wóotal yónneen tuuti ana saw bay sëñ ku mu jaaral loxo taxaw serafal déggal serafal déggal dikkal kaw sara yëngooti na serafal déggal ah eh ku sopp Cheikh Ibra loxo ku sopp Cheikh Ibra loxo ku sopp Cheikh Ibra loxo loxo loxo loxo loxo loxo loxo loxo daa koy maam Sëriñ Njaay jërëjëf eh ana murit loxo loxo yi sopp Sëriñ Babacar bu loxo yi ca kaw ba yaa ñu doy ba yaa ñu doy xalifa aba loxo ca kaw ba yaa ñu doy ba yaa ñu doy xalifa aba loxo ca kaw ba yaa ñu doy ba yaa ñu doy xalifa aba loxo ca kaw ba yoo mbay mbay xalifa yaay roxoya njaay Babacar Sadiq mbay mbay mbay ana soppay yoneen yëkkati leen yëkkati leen loxo jagaw yëkkati leen yëkkati leen loxo yi jagaw ku yëkkati yëkkati yëkkati leen yëkkati yëkkati loxo yi yëkkati leen loxo yi jagaw iraa la may wayal yaa watal yoneen tibi iraa la may wayal yaa watal yoneen yonent bi loxoy ca kaw ana soppay yonent ku nabi jaaral loxoy ca kaw loxo ca kaw Muhammad moo di turam Muhammad moo di turam Taha mooy turam Muhammad moo di turam lu baax yelloo na nabi loo mën a wax doo paase kii baax na sunu wasilatoo ngir ngir ñaangi mooy ki fi yor cër ami dogal amee sañ-sañ ci diine yëgul kooku mooy Awa mooy ki fi yor kër ami dogal yore seen sànni ci yëgul kooku mooy Awa bari mi kenn te gaalewul te mu door kooku mooy Awa bari mi kenn te gaalewul te mu door kooku mooy Awa xalifa ma fuuti doon na Maodo soog a dem moo di góor góor ga ca barzaq di jëf laa ca ba tey moo ki fi yor ceeb ami dogal ami say say ci jéem aññee bu ñu sagganu ci Babacar ana bu ñu sagganu ci Babacar ana bu ñu sagganu ci Babacar ana bu ñu sagganu ci Gamou gi gala yan guddi na bi Cees bu ñu sagganu ci Gamou gàmmu gi gala yéen guddi na bi Cees yéen fu ñu sàgganu ci gàmmu gi gala yéen guddi na bi Cees yéen fu ñu sàgganu ci gàmmu gi ana soppe yi Sëñ Fallu Mbàkke yéen fu ci gàmmu ana soppe yi Sëñ Saalu Mbàkke fu ñu ci gàmmu ana soppe yi Maam Seera Faal yi fu ci gàmmu ana soppe yi Maam Abdoulaye Ñas fu ñu ci gàmmu leen bu ñu sàggan ci gàmmu gi ana soppe yi Baay Ñas yi leen bu ñu sàggan ci gàmmu gi gala yéen mbokki Laayeen yéen bu ñu sàggan ci gàmmu gi gala yéen mbokki Laayeen yéen bu ñu sàggan ci gàmmu gi gala yéen mbokki Xaadir yéen bu ñu sàggan ci gàmmu gi gala yéen mbokki Xaadir yéen bu ñu sàggan ci gàmmu gi ana soppe yi Sëñ Saaliw Mbàkke bu ñu sàggan ci gàmmu gi waay ana soppi sëñ Saliou Mbacké fu ñu sàggal du gaaw ko ana soppi sëñ Babacar yi fu ñu sàggal du gaaw ko ana soppi sëñ Babacar yi fu ñu sàggal du gaaw ko ana soppi Mame Maodo Malick fu ñu sàggal du gaaw ko ana soppi Mame Cheikh Omar yi fu ñu sàggal du gaaw ko ana soppi Cheikh na Tidiane yi fu ñu sàggal du gaaw ko ana soppi Al Maktoum yi fu ñu sàggal sàgganu ci gàmmu gi ana soppi almaktoom yéen bu ñu sàgganu ci gàmmu gi ana soppi bu ñu sàgganu ci gàmmu gi ana soppi bu ñu sàgganu ci gàmmu gi ana soppi su tafaasi bu ñu saggan ci gàmmu gi mustar si diin mustar si daati bu ñu saggan ci gàmmu gi mustar si diin mustar si daati bu ñu saggan ci gàmmu gi ana soppi siñ xaadiseen bu ñu saggan ci gàmmu gi lii ku ci saggan ñu dem bala lii ku ci saggan ñu dem bala lii ku ci saggan guddi nabi gi ku ci saggan guddi nabi gi ku ci saggan guddi nabi gi ku ci saggan guddi nabi gi ku ci ci sàggal du dinaam gi ku ci sàggal du di yonent bi du di yonent bi ku dinaam bi ñoo organiser ku bi gi ku dinaam bi gi ku dinaam bi gi waa Cees ñoo organiser ku bi gi ana soppay yonent eh ana soppay yonent ku mu jaaral juugal taxaw ñu màggal yonent bi lii ku mu jaaral juugal màggal taxa ñu màggal yónneen bi eh guddi na bi gi guddi yónneen ti bee ko moom guddi yónneen ti bee ko moom guddi yónneen bi eh guddi yónneen bi ana soppe yi Sëñ Babakar ci guddi yónneen bi ku mu jaaral loxo yi ca ka ñu màggal yónneen bi ana soppe yi yónneen eh ku mu jaaral loxo yi ca ka ñu màggal yónneen bi guddi yónneen bi waa Thiès ñoo organisé guddi yónneen bi waa Thiès kaay ñoo organisé guddi yónneen bi tijaan yi ñëw nañu tijaan yi ñëw nañu tijaan yi ñëw nañu murit yi ñëw nañu xaadir yeen ñëw nañu laayeen yi ñëw nañu ñaseen yeen ñëw nañu tijaan yi ñëw nañu xaadir yi ñëw nañu laayeen yi ñëw nañu tijaan yi ñëw nañu tijaan yi ana soppi Sëriñ Abdul Aziz Al Amina ana soppi sëriñ Abdul Aziz Si al amina kii moo yar Iran moo yar Iran al amina ana soppi sëriñ Abdul Aziz Si al amina jàmbar jaangi noonu waaye al amina ana soppi sëriñ Abdul Aziz al amina Abdou yaay Amina yaay Amina ana soppi sëñ Abdou dégg nga mag ñi dégg nga ndaw ñi ana soppi sëñ Abdou dégg nga mag ñi dégg nga ndaw ñi ah, ku bëgg Serigne Abdoul Aziz sa ñaari loxo ca kaw ku bëgg Serigne Abdoul Aziz sa ñaari loxo ca kaw yow la nu doy loo dégg nga mag ñi dégg nga ndaw ñi ah, góor ga dem na dégg nga mag ñi dégg nga ndaw ñi Serigne Abdou ba mu amee fukki at ak juróom la ko Serigne Babacar woo ni ko doxalal yow la nu wóoloo day nga mag di day ndaani Serigne Abdou bu naan dem mu bu naan dem mu Saalum loxo ca kaw bu naan dem mu Saalum yëpp camion ceeb yëpp camion dooley Serigne Abdou wàcc na ku ko bëgg sa loxo yi jàkko ku ko bëgg sa loxo yi jàkko Serigne Abdou wàcc na dem leen bati waawan dem leen bati waawan lu fa baax moo ko fa def defar na jumaa ja Serigne Abdou ku feebar mu faj ku dee mu dëjël la ku juddu mu ngéete moo daan joxe paasi màkka yi al amina al amin al amina acca mbay nanu weyla bay la ka jiital newul ci ñun bay si bu jiitoo ñun bu ñu jàqee bay bu ñu tiitee bay ba xooy bay do bu jiitee ñu topp ñun bu ñu jàqee bay ba ko eh. loxo yi ñu màggal Ababacar loxo ñu màggal ku màggal mbay si mag ku màggal mbay si mag segul khalifa moo jara màggal gam khalifa moo jara màggal bay la ka jiital di wul si ñun bu ñu jàqee ma jàll ñun bu ñu tiitee bay ba ko eh, jigim si la jàll ñu si jékki ah jigim si la te ka jàll ñu si jékki Mek ca Kawsara doddaluñu Kawsara Mambay ca Kawsara doddaluñu Kawsara ku bëgg Sëriñ Babacar eh, ku bëgg Sëriñ Babacar ku sopp Sëriñ Babacar loxo ku bëgg Sëriñ Babacar doddal la Kawsara Mambay bu naan déew góor gi bu naan déetu ba Mambay bu naan déetu ba góor gi bu naan déetu góor gi ñu lakkoon ka nay déggul naan tuuti moo bu ñu lakkoon bàmbal ya naan moo ekoon bu ñu sàggan ci Baabakar bu ñu sàggan ay bu ñu sàggan dañ fa dem bu ñu sàggan ay bu ñu sàggan dañ fi ñëw bu ñu sàggan ay bu ñu sàggan ci gàmmu gi gu ñu sàggan ay bu ñu sàggan dañ fa dem bu ñu sàggan ay bu ñu sàggan loxo ngir màggal Abaabakar Sëriñ Baabakar e ku ko soppul ba saa taxaw lay ramu xam ay bu ñu saakal dañ fa dem bu ñu saakal ay bu ñu saakal wala bu ñu saakal ay bu ñu bu ñu saakal ay bu ñu saakal loxoy ca kaw bu ñu saakal kon ku ci ku ca kaw boo ko defee yomal xiyam doo fa daxaw sunu maam mbay si jar na ko jaral na ba man jaral na bay si bu jiito muy daago naan rabbun tabaraka aw rabbun ta adasa aw rabbun ta allah ulo wa rabbi allah waaw waaw jaajëfal maktoom jaajëfal cheikh jaajëfal maktoom jaajëfal cheikh loxoy jaajëfal maktoom jaajëfal cheikh jaajëfal maktoom jaajëfal cheikh ndaxte moo ñàkkal ki ko jar mbay si xool ko seddu ko jër jël garaat tabal ko ko nan ko loolu mooy li samaan def ci man si ngay digal wàcc naa tey la ma samaan defaloon jox naa la ko bàyyi leen di xeebi xale bàyyi leen di xeebi xale bàyyi leen di xeebi réew mi bàyyi leen di xeebi xale bàyyi leen di xeebi Sénégal bàyyi leen di xeebi xale leen di xeebi réew mi bàyyi leen di xeebi xale mag mu toog di xool ba xaleel foop ngërëm yokkoon matatul muy xuloo ba xooti ko ab xaleel loxoom bu setee ab xaleel loxoom bu setee tàllaleel loxo bu sa tee jëf ja mag ñi gën ni ko tey yaa ñu doy ba samp ko ay xul du tax ñu seppi ko nañ di ñaanal waa xadara nañ di ñaanal waa xadara tey itam xuloo dafa wees àndandoo liggéey fi bi yanam dafa diis boo xuloo mu dolli ko ñi jubo réew mi nañ jubo tiijaan ñi jubo xaadir ñi jubo laayeen buñ xuloo tiijaan nañ jubo muritu nañ jubo laayeen nañ jubo parti nañ jubo guur gi nañ jubo opposant nañ jubóo réew mi nañ jubóo buñ xulloo xaju fi buñ xulloo parti nañ jubóo Sénégal nañ jubóo galawaay buñ xulloo Syrie ñu jubóo Polo nañ jubóo galawaay buñ xulloo réew mi nañ jubóo galawaay buñ xulloo buñ xulloo fi ñaa waaw waaw xaju fi ñu ni neen neen neen neen ñoo fi ne ñu ni neen ñoo fi ne fi dara jarul tiijaan muy xuloo aduna fi dara jarul muurit muy xuloo kon de joxante leen loxo joxante leen loxo joxante leen loxo na xol yi roofaloo alxasuudu laa yasuudu na xol yi roofaloo na xol yi tàppaloo ala ahmadin min rabbi salawaatu woo mbooloo mi ko sopp yonent yàlla Muhammad loxo ca kaw ñu màggal seen njol makka yaa leen gën njol makka yaa ñu raw Muhammad ala ahmadin min rabbi salawatu لقد زمن في خلقي بركته لقد بهرت سمس الدهى معجزته سيدنا محمد موي براينو la taradi wa ibadu wa ayatu suhbun wa amlu suhbun eh! jol makka yaa leen gën makka yaa leen raw xam loo rutbatul fawqa si ma kay ni xar sama waa ko sopp yonent bi defal nii لهور رتبة فو حسما كيني خسما ينن بي وكأف ندى تحكي سحاب متمت فأيودا بالأمر والنكير حكما إذا أدد للرسل آه، آه، آه، يتخدم فأي رسول الله أدلى أدوى دول مكة يا لندن يا نور محمد نبي عظيم خضر بالحق مرسل واي ديف لين ني ماغلي يننت بي واي يعلو بك مسكان طفلا وين على فلله منه وهو اخلا واكمل نبي مي امينون لإرصاد العباد مولى حبيب بأسرار القلوب المنبّه jël Makka yaa leen raw jël Makka yaa ñu raw diyaman bihi wan wi tabarruka bismi صلى الله عليه وسلم ولا تعد في شيء طريقة رسمي فقد أسمى المولى لو xayra xasmi taraxa yonen yëg oh. na taraxa yonen yëg na taraxa yonen yëg na ba muy xotti asamaan yay dem malaaka yaa koy tàccu kon tàccu leen yonent bi waxat ashirafat am laa ku haa haa aa aa wata jollate moom sayyiduna muhammad rasulullah njol makka yaa ñu raw njol makka yaa leen raw هوى كل مجد للورى وجلالة جلالتي يقول ما كنت واي يق إبرة هوى كل مجد للورى وجلالة وجاء بآيات محت كل قالة سنيا فمن سك في فهو علف دلالة يلاك أفي الحق سكون بعد ألف دلالة ما يتحدى ما ذكره مدى الدهر يكره آه! جل مكيا لنجين مكيا للرو محمد خليل يا وجاب المحسب وانزلا ولا تبغيا عن خيفه متخولا فاكرم به منان تحراح منزلا احق عباد الله بالمجد والعلا نبي لو على الجنان مبوء Njol makaya ñu raw njol makaya la raw Muhammad waaye xanaa tant bi soppe yonent bi nekk fi waay ca kaw alayhi wa sallam guddi gi kiñ ko tàntal muy Seyduna Muhammad yonent bi nee na dañ koo laaj ku daa laaj ni kan moo nay ñu ne ki am alal te doo ko joxe yonent bi ni kooku nayul ñu ne ko ki bëri lool di séddale waaye kenn du gis mu séddale jox doomu aadama yi nayul ñu ne ko kan moo nay mu ni ki dégg sama tur ñu ni ñu tudd sama tur te waxul sallallahu alayhi wa moo tax Baye Mbaye Donde nee na ne day laaj ñetti ñii kan moo ci gën a ragal loolu lay waajaat laajaat waa tànt bi nag damay laaj ñetti ñii kan moo ci gën a ragal kii dañ ni ko gaynde gaa ngi Dakar waaye egseegul Cees waa Cees dégg ko tiit dee loolu yéeme na gaa ngi Dakar waaye ak Cees waa Cees dégg ko tiit waaye bi gaynde gi ak see Cees dugg Tiwaawan ñu ni waa Tiwaawan gaynde gaa ngi ci biir Tiwaawan waa Tiwaawan tidde gaynde gi génn Tiwaawan romb ngaay dem ndar ñu téléphoné waa ndar ni leen gaynde gi jóge na Dakar dugg Cees génn Cees dugg Tiwaawan romb na ngaay dugg na ndar waa ngaay dékku tidde waa Cees dañu leen mi ngi ñëw ñoom ñu tiit de mi ngi ñëw rek lañ leen wax ñu tiit de ñee ñu ni leen gaynde gaañ ci biir dëkk bi ñoo ñu door a tiit dee ñee ñu ni leen gaynde gi ñëw na waaye romb na dem na ñoo ñu tiit dee ñu ci gën a ragal ñu njëkk ñi ragal nañ waaye ñu mujj ñi ñoo gën a ragal xam ngeen kañ mooy gaynde gi gaynde gi mooy siidunaaye muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñu ni leen gaynde gaa ngi ñëw ñu tiit de mooy yonent yi waa def leen nii ci yonent yàlla muhammad loxo xoolal yonent yàlla aadama yàlla dañu ko nekkal bil aljana tëddal fu la neex lekkal lu la neex waaye garab gi nang ma ko fi bàyyil bu ko laal te ko jege iblis ñëw ni ko aadama mu ne ko waaw mu ne ko gis nga garab gi li tax yàlla ni bu ko laal bu ko jege mu ne ko waaw mu ne ko nguuram ci la nekk boo ci lekkee yàlla day folleeku nga falu cey seytaane ah nee mu lekk ca garab yàlla ni ko tooñ nga ma nag génnal aljana waaye yonent yàlla aadama bi mu ñëwee ba ci bunt bi gis ñu bind ci bunt bi laa ilaha illallah muhammad rasulullah mu ne yàlla dama lay ñaan kii nga fonk jël sa tur lëkkale ko ak turam xam naa ni fonk ko dama bëgg nga baal ma ci barkeem te yonent bi juddoogul kat déedéet yàlla ni foo xamee yonent bi mu ni damaa gis bi ma nekkee aljana fourchette yi kudd yi bool yi gaz yi lépp yaa ngi ci bind muhammadu rasulullahi ma génn ci biti gis nga bind ci bunt bi laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi ma xam ni kii fonk nga ko mu ne ko waaw kooku nag juddoogul waaye moo tax ma bind la yow yonent yàlla aadama wa maa xalaqa rahmaanu say an li nafsi si waa seydil mahmudi wa huwa habibo def leen ni ñu màggal seyduna muhammad kon yonent yàlla aadama dañ ne ko gaynde gaa ngi ñëw mu tiit dee gaynde gaa ngi ci biir dëkk bi ñooñu tiit dee mooy saxaaba yi saxaaba yi nekkoon ak yeneen bi moo tax sëriñ seex nee na dëgg dafa judd nee ci néeg bi jigéen jëm nee jigéen gëm muy soxna xadiija waaye def leen ni yéen jigéen ñi waay moo tax jigéen a njëkk a dugg ci lislaam jigéen lañu njëkk rey ci lislaam muy soxna Sumayya mook bilaal bilaal dañ kaa tëral ci naaj bi tàllal ñaari loxoom tàllal ñaari tànkam jël xeer bu diis teg ci dënnam naan ko saagaal muhammad yonent bi naan duma ko saagaal muhammada muhammada ma ngay jooy te naan gëm naa borom ahadu ahad waaye loxo ñu màggal Seyduna Muhammad jar na ko de waaw waaw Bilal di nit ku ñuul moo tax ñàkk si yàgg naa baax de ñàkk si yàgg naa baax ñu jël Bilal teg xeer bu diis teg ko ci naaj teg ci dënnam nan ko saagal muhammad di ku dóor ña ngay dóor bilal ta naan ko saagal muhammada muhammada ma ngay jooy te naan gëm na borom ahadoon ahad ñu jël sumaya ni ko moom it na saaga muhammad mu ni duma ko saaga naan laa ilaha illallah muhammadu rasulullah lee ñu jël tànk ndeyjoor takk ci gileem jël tànk càmmoñ takk ci gileem jël loxo ndeyjoor takk ci gileem jël loxo càmmoñ takk ci gileem dàq yi ñu jëm penk dàq yi ñu jëm sow ngay sumay yaxaat ñoo jaral ñoo ñu seen bakkan yow nga ni nelawuma gënal toog sa kër ñiy tàntal yeneen dañoo ñëw ñee sacrifier seen bakkan ngir jëmm yonent bi les jigéen a njëkk ga muy soxna Xadiija sëriñ Cheikh ne nee bi jigéen gëmee dëgg raam ñëw ci ëtt bi ne xale gëm muy Seydina Ali ne dëgg waaxu dem ci pénc bi ne mag gëm muy Abubakar

عملون على حكايا عمل محا جوجو فامننا وصل ليانيا إلهي وزيانا أبدا أنا محمد أنا المختار في القدام سيدي قزت سفا عطوة الكبار Alaaji Maalik raw na gaaña wasal lu yéene yaa ilaahi wa siyana abada ana muhammadana almuxtaar fi lqidaami waa nañu bëgg Seydil Haaji Maalik jàmbaar ji loxo ca kaw كما أنت في مرني نور من النور خير أو داتوقي كامل تفيد فيد العالم أخلاقي الله أخذ أوداته حكمة تفيد فيدا على نور من النور قد أودعت حكمة تفيد فيدا على أخلاقي الله indil ma du iya aw isatin humuloo alaaji raw na gaaña wasal liyaniya ilaay wajziyana abada أنا محمد أنا المختار في القدامي Sahibun Nafi' Imam Sir again. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi ñaan nag ndax dañu wax ne ku am ganu bu lay waxal soo waxatee yàq ko danga koy déglu waaye boo dee wax muy wax ñaari wax lay doon du am njëriñ ustaas ñu ngi lay nuyu di la ziyaare gis nañ sax bi nga ñu akolaate danga mujj di génni ay ronkoñ ndax xam naa ni yërëm ñu rekk ak ñeewante moo waral loolu ndax mbir mi nag dafa metti waaye yàlla baax na gannaaw dañ noon du fi amee mu amee fii rek baax doy na du fi amee mu amee doy na tabaarakallaahu boo defee gàmmu gi nag ustaas sa la waxoon naa la nela man fii maa ngi koy man di ko def suñ ma doon dugal ci oto sax ma ñëw daje feeg yow nga waxtaan ba pare ma ñibbi man yàlla bindeewu ma wor bindeewu ma jàpp bàyyi bindeewu ma waaba jiwi man nit ku direct rek ndaw ñi nag moom li ma leen di wax rekk mooy na góor góorlu te gis nga réew mi li fi nekk akas bon buñ ko yàqee ki fi nekk bu fi jógee kiy ñëw dana sonn kiy ñëw dana sonn torop pour rattraper yi nga yi yàq kon nañu xàmme li ñu moom ñun ak li président Macky moom nañ ko xàmme li nu moom nañ ko aaral sunu bopp li président Macky moom nag bu leen neexee yéen a xam waaye yàq baaxul li nu moom nanu ko xàmme ak li président Macky moom président Macky li mu moom defe naa nag ah bëriwul de li moom bariwul lu ñu xàmmi parce que tata yeeg osan yeeg total yeeg alalu jàmbur la lépp alalu jàmbur la du alalu mag kon ngeen góor góorlu ñi ñi yor jakarta nañu góor góorlu rekk jakarta Boko Yore ti selal man na jur benen jakarta boba jur benen jakarta nga dem ba far jënd auto ci auto bi nga jënd nga dema dema dema dem ba am benen auto dem ba mujj nek transporteur ne man jakarta la commencé won mujj nga nek euh, transporteur kon ngeen gor gor lu baña yak Jakarta ku koy yor am na oto yum gëna gaaw fuuf am na oto yoo xam ne buñ déparé Tiwaawoon jëm si Thiès Jakarta mën naa dikku delluwaat demaat dikkaat demaat dikkaat ba maara day taali nga baal ñu way sëñ bi baal leen ñu eh baal ñu way yu itam dégg nga loolu Jakarta mën na ko su ko defee ngeen góorgóorlu bañ a yàq seen jakarta yi ngeen yore ngeen fonk ko bu baax di ko raxas comme ko yor sa avion jama Sen jakarta yi comme ko yor avion jama parce que xeebul la nga am di buur waaye boo xeebee li nga am nag di baadoo la ku xeebul li nga am rek di buur jakarta yi ngeen am maa alhamdulilahi mi na rafet na man naa daw ku ngeen ci supporté leen te oyof parce que am na nit ñoo xam ne bu ngeen leen sëfee rek pneu yi toj seen yaakaar daa yàqu waaw ñooñu moom da ngeen leen di moytu bëgg xaalis bu mu leen ko jaral moytu leen façon yooyu ñu jéem a dugg ci oto yi moo tane ci ñoom waaw ngay jaay bëgg xaalis mu war ngay geesu defee ay ton lañ la sëf yaa yenu loolu lépp ngeen bàyyi ko xel ngeen góor góorlu bu baax nangoo liggéey ku ne am na liggéey Sénégal am na liggéey parce que liggéey boo xeeb rek moo fi ne gis nga euh, Sénégalais yi jógee fii di dem Europe lanuy yanu di ko jaay par bés buñ ko wàccee nga defe ne ci mbaam lañ ko te tewoon billaahi da ngay defe ni ci mbaam lañ ko sëfoon te nit a ko yenu mais bu ñu ñëwee fii nag di tiitaru du tiitaru jaru ko fële dangay ngay nangoo liggéey la ngay def fële boo ko defoon fii am li nga am fële waaye duñ ko def soo demee fële nag ba nga xam ne ñàkk nga pexe gis naa benn euh, mu nuyu ma fii defe ne xàmmewu ma ko ma nuyu ko masqué wu ko bërki démb maa ko romb mu ngiy bale ci benn buntu kër loolu loo ciy nëbb ñaq ñu fay la amul nëbbu ñuq yi fi jàmbur bëgg a daw ak moom moo jar nëbbu waaye ñu ñaq ñu fay la jarul nëbbu parce que loolu ngor la ngor la gore la waaye li goree di kay mooy jël alalu jàmbur bëgg a daw ak moom mu ngay bale bu baax te kat bi mu toogee man mu naan ma man eh, maa maa nekk place sàngam maa yor lii maa yor le ma ne ko waa baax na far may jógi tiwaawoon rek yem ci moom sama woto loolu daara jaru ko nangul liggéey rek gis nga bindaanu la bul yàq rek gis bindaan mi nga gis muy dem euh, gardien bi gis muy dem ñépp a ci yem ñoo président bi ñoo yem dañuy xëy liggéey rek ñu fay leen ñépp liggéey këlle mbindaan mi dañ koy fay dañ koo bind di ko fay président Macky Sall dañ koo bind te ko fay ñëpp a yem bee dafa gën a kawe rek ba dafa ëppale bii gën a néewle waaye bu bi bu gën a néewle bi bu góor góorloo dana dem ca ba gën a kawe dina gis ngeen li gën a gore gën a neex yor sa alalu bopp ku ko man daal man xam naa ne moo gën a gore parce que topp politiciens yi di yang yang ci seen gannaaw te duñ la jox dara lu ko jar jaru ko góor góor leen ci li ngeen yore góor góor leen ci li ngeen yore bu leen topp kenn bu leen yàq dara bu leen foye seen bopp am leen personnalité am leen dignité bëgg leen seen bopp loolu bu ngeen ko defee da ngeen dem am leen personnalité am leen dignité bëgg leen seen bopp loolu ma wax leen ko ngeen bàyyi ko xel gis nga ñun bu fekkoon politique bi am nañ kii wax naa ko bërki démb yow yéen ñii seen sit bëgg Bàmba may leen Oustaz Alioune Sall li ma neexee musuma dégg mu wax safaan te yéen ñi kenn déggu ko musuma dégg Oustaz Alioune Sall wax safaan ci benn sit musuma gis ñu laaj ko mu wax safaan day day day day tollale rek parce que loolu mooy nit parce que politique bii nga topp leen boo ëllëgee kii daanu léegi nooy def ki jóg te xasoon nga ko xaste moo dul wala moo dul wàll gor da ngay fexe rek e équilibrer sa kàddu bul xas kenn bul xas kii bul xas kee góor góorlul ci li nga nekk gis nga ñun suñ gàmm gi sant yàlla giñ ci sant yàlla moo di xam nga euh, projet mag eh, eh, aji Sarr ak sonk xam nga mu ngi nekk le 3 le 3 lañ ko yóbbu le 23 fekk na ñu gàmm ba yooru waaw ah looloo fekk na ñun ñu eh, ñu gàmm ba pare le 23 fekk na ñun ñu pare ci lépp waaye projet boobu itam naa leen ci wax lëpp nañu ko àtte mu jeex nit ñi bàyyi coow li dellu ci tool yi liggéey nañu bàyyi coow li dellu ci liggéey bi parce que bis bu jot aji saar sonko nit dee ba gannaaw ëllëg aji saar sonko nit dee loolu ba kañ te wax nañ leen bu dee ci charia ah bu dee ci charia amaguñ fuñ condamné sonk charia laay wax man nag ci charia laay wax man waxuma ci seen atte waxuma man charia lay wax amul fenn fuñ ko mën a condamné waaw mais c'est ça parce que ñeenti seede yu maandu lañ la wax yu maandu nekk gor nekk jullit bokkuñu fu ñu jógee ñoo ko gisandoo këmir wadin fii mukkalatin comme kuur goo fekk ci biir gënn noonu nga fekkee mu awraam ne ci biir awra ndaw si ñeenti ñii ma wax gisandoo ko te kenn wanu ko sa morom ñu yëkkatee ndoo ko bala ñoo bala àtte nag dana ñuy yónni ilimaan dana yónni laajte Iran ndaw lu ngeen xam ci moom moom de doy na waar de buñ ne doy na waar jeex na ña ca des dootuñu leen laaj buñ ne ah, maandu na de maandu na ñu ne waaw jullitam ñu ni am na lislaam góor la deret ji mbokk yëpp góor la amul benn jaam bu ci ne parce que li tax ñu bëgg nga mu nekk góor bu dee jaam la jaam day néew doole parce que du mën a wax dëgg ñu tànn loolu bu ñeenti ñi matee seede yi mat ñu doog a jël ki góor gi àtte ko jël Sonko àtte loolu lañ jàng ñun su fekkee amu nag ndaw si am ko ndaw si na am na indi lu leer waaye lii kenn xamul fu mu jëm te bakken bu ci dee dootu dekkiwaat ku ci dee jeex na nañ leen yërëm doomu jàmbur yi yërëm xale yi te kat gis nga mbir mi bu la ci kenn nax de bu ci nit ñi dee ñoom ñu nga toog di seetaan seen télé ñuy rey xale yi di fetal xale yi di dóor xale yi di gaañ xale yi xale yi gaañu fee ñuy tuumaalante ku nekk ku naan yaa tax ñu rey diw yaa tax yooyu yooyu amul solo kadee dee na kon na góor góorlu projet boobu ngeen def ci seen kemtalaay kàttan fexe mu féete boor tiit ngeen bàyyi ci xel yàlla sunu borom bàyyi leen ci xel yàlla sunu borom lu ci dugg ti lu tudd yàlla dana ko semp bàyyi leen ci xel yàlla sunu borom yàlla rek a mat a bàyyi xel waaye di tëll bàyyi woo xel yàlla bu ëllëgee mën nga ci am problème kon lu ci waay di wax baa nga ko ciy jëf na nga ko xam boo ko xamul bu ci dugg waaw na xam na ko xam boo ko xamul bu ci dugg mais yow xamoo ci lii dara nga wax ci lii wax ci lii wax ci la pour la ndax ndax bëgg a faral keneen looy faralaate kon góor góorlu leen projet boobu daal nañu ko dakkal nu mu gën a gaawee le 23 daal nañ ne saye saye saye mu jeex waaye projet yow da ngay xool ne ñi ciy dee sa doom bokku ci sa doom bokku ci bi sa doom bokkoon doon nangu mu dee doomi jàmbu rekk a ciy dee xale yi rekk a ciy dee loolu la nga di ko seetaan pour lan kon nañu ko àtte mu jeex coow réew mi ñu bàyyi réew mi mu dal réew mi nag du tàkk du tàkk de du tàkk mukk ba àdduna tukki parce que Serigne Touba moom moo ñu réew mi Seydi Hadji Malick moo ñu réew mi Seydina Limaamu Laay moo ñu réew mi mam Bu Kunta moo ñu réew mi liñ ko mooñee ba mu mooñu mënuñ ko fee bàyyi ab xale di ko yàq kenn du ko yàq kenn mënu ko yàq réew mi du tàkk ak lu mu métti métti du tàkk waaw ah, réew réew mi nu muy tàkkee réew mi Sénégal yëpp ni mu tool toll ko koy taal ah, ah ko xanaa bala nga koo taal da nga sonn sax boo doon jël almet di def nii rek di taal <laughs> xanaa bala ngaa daje réew mi sax dee donc ngeen góorlu rek nekk leen xale yu nekk pré yu nekk exemplaire ci seeni biiri morom nekk ñu nekk nit ñu nekk exemple ci seen biir i morom na ngeen góorlu bu baax loolu rek laa ci doon wax man euh, ndax ki moom waxtaan waa ngi nii euh, xanaa jox Thierno Seydou Nourou Tall mu ubbil la nga def sa gàmmu bismillah yaa ngi nelaw <laughs> <laughs> Ah. <laughs> baal ma baal kii nag juróom fukki junni la kala ko joxoon na la ko jox rek kala ko daan jox Mohamed Ndiaye moo la jox juróom fukki junni yi juróom fukki junni yi Pinte Thiam moom la ko jox jox ko Mohamed Ndiaye leen ko jox ah dama ko bëggoon a fàtte du ma ko fàtte woon du doon penalty pen waaye léegi penanti la waaw الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سيد بني هاشم سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام بوك جلتي ñongi len di nuyu ci kàddu l'islam te moy assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñi de fay nañu ma waye yéen fayu len ma du ngeen ma fay xaaji ibrahim ñu ngi lay ndokkel di ndokkeel it ñi ñu àndaloon ci commission bi bu ñu tuddee Pape Gueye grand sëriñ sëñ Cheikh Sarr maas ñu yóbbuwaale géew ñi ci des ndax dañoo xaw a takku coono gu nekk ñu daj ko waaye xaaji ibrahim ni ñu dina metti waaye dina neex moom loolu lañu wax ni bu ustaaz Alioune Sall ñëwee Cerno Saidu nga tijjil ko tey dañuy yem ci tijj rekk bàyyi waxtaan wi ba ndokkeel ga insha allah ndax fi mu ne xol bi dafa sedd te dañuy wax ni ñaar ñaari xaal boo ci tollee di wax boo moytuwul wax lëf te mooy mer ba mu ëpp wala bég ba mu ëpp oustaz bég nañu gis nga li ma toog lépp wallaahi toogewu ma xel mu dal Ibrahim dafa génn dikkaat li ma oustaz a ngi ñëw ci la xel mii doog a dal de alhamdulilah bi nga egg seeg sago ñu nuyu Chérif ay dara moom way juram bi mu jógee Arabie Saoudite di ñëw Sénégal sëñ kër si mu yónni ni shérif boobuy wàcc aéroport dem leen génn jëlil ma ko indil ma ko mooy way juram moom mi toog li ko indi këramam alaaji ñu nuyu waa xadra ba moom laa waroon a jiital maa ngi koy tooñe xaaji Ibrahim ni ko fii Cees la gis nga ñi ñëw ñëpp biñ ma nuyoo njëgéen lañ ma santale waaye jaawara sant dafa fekk nag dama màgg ci kër gi yaru ci kër gi nekk meññeefu kër gi kon indi nañu nuyu xalifa bi suñ pap Mouhamed Munir ak képp kuy rakkam rek ku nekk ci xadra ba fa tabaarakallaahu léegi la suñu as Mouhamed Moustapha di ma woo ni ma nuyul ma xaj Ibrahim ne ko ñaanu maam usmaan Njëgeen gi ñu nekk moo tax egseegu ma yal na yàlla mottali lépp oustaz yàlla ku maandu la yàlla ku maandu la maandute nag maandute neexut a xam nit ñi dañ naan maandu maandu rek dama toog ak Pape Moustapha Ndiéguène mu ne ma ndax am nga nuzhatul majaalis ma ne ko papa di man téere boobu xaw ma ko mu ne ma demal nga uti ko moom ak nuurul absaar ne ma sa baay Ibrahima saaxol lu mu masaan ma waxtaane ca tànt génnul ñaari téere yooyu maa ngi koy wër di ko wër ba bint ña ga ca tiwaawoon ca wetu marché ba laa dugg ni góor gi ñaari téere laa bëgg nuurul absaar ak nuzhatul majalis mu ne ma yow doom doo gone de ndax téere yooyu ah man de am naa ko waaye xamatuma sax fu mu nekk ci magasin bi di ko wër ba génne ko fëgg ko oustaz bi ma liiree nuzha benn xissa moo ma ci gën a yéem te mooy maandute yàlla ko maandu la yontu yàlla Musaa moo xëy ni yàlla damaa bëgg xam luy maandu yàlla ni ko ci misaal demal Cees mu ne ko yàlla cees sori na de mu ne ko li nga bëgg xam rëy bu ma yeggee cees fu ma jëm mu ne ko poromonaat dee des Thiessois fu roq ci cees la nag waaye fexeel ba gis ko mu ne ko yàlla bu ma yeggee nu may def mu ne ko toog te maandu loo gis xoolal te noppi sa yoon nekku ci musaa di dox di laajte ba egsi promenade des Thiessois ci misaal fekk mu dig dex bu bari ndox mu ne yàlla egsi naa mu ne ko toogal te seetaan benn waay ñëw réere yoon wi mu doon dem dégg ndox mi ni muy gannaaxe mu ñëw doon naan naan ba noppi waddal fa sukaare sukaare nag xam naa oustaz Aline ñoom ñoo koy xam mooy man euh, xaw ma euh, loolu suñu mbokk euh, njabootu suñu maam ahmadul xadim yi di takk noonu maxtuume sukkaare noonu lay mel mag ñi dañ ko daan gàddu comme saa yi daan def rajo ci lañ daan denc lu ñu am waaye problème bi mooy waa ji sukkaare bi téeméeri million ci nekk cent million bi ma ko waddalee Moussa ni yàlla ah li mu waddal ko ko waddal yëg ko de téema ko ko wax ni ko li nga waddal li nga fi fàtte jël ko mu ni ko maandul sa yoon nekku ci Musaa ni kon yàlla maandu naa ñu dawal diir benn xale bu doon dox di wuti wërsëg naaj wi tàng mu dégg ndox mi ni muy gannaaxe mu ñëw doon naan si naan ba noppi sëlmu jël mbaxana ma tooyal tooyal bopp bi ëlbati ko yem ci sukkaare bi këdd ko gis ni mu diise mu tëjj ko gis li ci nekk ne sama àdduna neex na xaw ma nag bu àllaaxira waaye àdduna moom neex na lu toll nii ma yem ci sama àdduna neex na Musaa ni ko yàlla déet moo ma ko de bàyyil ma ni ko xëw bu nee gindet ma ni ko wub sàcceey yàlla ni ko lu ci sa yoon maandu ji mu ne ko yàlla maandu naa waa ji waddal xaalis bi xale bi ko for xam nga ñaari problème googu ñu toog tuuti benn cilmaxa ñëw di naan si naan ba noppi nag doon dallu boroom xaalis ba dellu si yem ci cilmaxa gi ni ko ñaara mën a am sama xaalis yaa ko jël danga ma koy delloo mbaa nga jox ma sa bakkan ci ma xega ne ko xana xol wama man aw may bët di nu may gisab ba diko jël muné ko no def ba ñëw ci ndox mi muné ko ndox day xéñ muné ko xaliss ko gëna xéñ ni say bakken def ba gis ba xam fi ndox mi ne nonu la sa bakken def ba xam fi xaliss bi ne ñaari mëna am sama xaliss ba sa bakken Moussa ne yàlla maa ngi génn àtte mu ne ko sa yoon nekku ci maandul mu ni tekk waa ji dagg yatu dëkk bu mag tim cilmaxa maxa gi di dóor bopp ba di toj deret ji di sottiku Moussa ne yàlla sama muñukaay jeex na maa ngi génn àtte wallaahi jëlul alalam mu ne ko sa yoon newu ci maandul yaa ma laaj luy maandute mu di ko dóor cilmaxa gi di yuuxu muy dóor muy yuuxu ba ni mu faatoo mu këdd niiw ba ni ko jël nga sama alal ma jël sa bakken yàlla ni Musaa naka mu rangooñi Musaa rangooñ ya ak yi génn ca bakken ba ñu ngi dajaloo ci sikkim bi ndax xol bu jeex yàlla ni ko maandutee ngi nii xam nga kon waxtaan wu tëju la mu ne ko yàlla leeral ko mu ne ko gis nga gone gi far xaalis bi ndonoom la moo ko moom bi way juróom bu góor faatoo waa ji waddal xaalis bi moo njëkk ca kër ga sàcc alal ji ma um ko fukki at ak juróom-ñett ngi foo ko fekk day jël sukkaari bi wékkoo ko waaye téeméeri millions yi ci biir te baayu gune gi ba ko fa mënu cee jaayu dërëm parce que man yàlla maa téye um ko ba dërëm mënu ko cee jaay di ko dencal ki nga xamante ni bii mooy borom alal ji bu ko yàlla mayee mu màgg ba am 18 ans ma delloo ko alalam te fii laa ko doon delloo te yaa doon seede bi. kon bu ñu yàkkamti bu ñu yàkkamti kenn ku ci nekk sa wërsëg. yàllaa ngi la ko tegal fa mu ne lu mu yàgg-yàgg di nga ci jot maa ngi koy wax léegi suñu góor gi nañ ma dimbali rek damay tijjil sama sëriñ muy sëriñu Ali Imran xam nga waa jii lu tax ma fonk ko 96 laa ko xam 96 ku fi juddoon kàllaf nga ka taxoon ma xam ko moom xam na ma xam yàlla xam ñun dañoo amul ku dul cheikhul khalifa man nag njabootu alaaji ahmed njëgin laa lu mu amul ëllëg yaakaaruma ko waaye sama yaram boo ko daggoon bu deret tuuroo bu daanoo ci suuf si baaba kër liy bind ba daara ji may jàngalee ci Madina Fall daara yi maam xalifa laa ko tudde la fa génne ci ndongo yu mokkal alquran bu jegewul junni léegi mu mat ko parce que 99 laa ko tijji woon xale yu fa njëkk góor ñi am nañuy soxna jigéen ñi sëy nañu ba ami doom mu nekkal ñu ci daara yi sëñ Babacar maa dégg ci sëñ Mansour kenn nettaliwu ma ci bésu daara ji ñu teg vidéo bi ci chaîne Tivaouane bi mu ne Ibrahima ñun ñëpp a ko war a fekk ca daara ja di ko tëggal di ko feccal kunkal mu toll ni sëñ Mansour si ko mu waxal loolu xëy na tey laa koy doog a wax man ku ma gis nga dàq maa jaamu yàlla walla nga ëpp ma xam-xam ma def la ngay sama sëriñ yéen nag ay sëriñ daara ngeen wallaahi loolu laa leen fonke moom mii billaahi loolu laa ko bëgge alxuraan may na ma lu ne te lam ma may lam ma mayegul ëpp lim ma may tamit xam naa loolu moo tax bu ñu yàkkamti Moussa ni ko yàlla loolu leer na xaalis bi waajee ko sàccoon ci bàyyi xale bi dencal ko ko yow yàlla yaa ko ko dencal te kon waaji kon dafa nekk banque mobile mooy banque bi nga xam ni moo dencal xale bi xaalis bi waaye ci yokk càmmuteefuk yàlla kon nag xale bi am na dix-huit ans ci tey jël si na ndonoom kon ndekete sàcc ko te it ko Moussa ni yàlla loolu leer na waaye cilmaxa gi nag mu ne ko du woon cilmaxa njàccaar la woon gis nga waa jii ko rey tey cilmaxa gi reyoon baayam gis nga ba mu koy rey da ko tim ñàdd ko di ko rindi ni cilmaxa gi doon yuuxoo naan ko innocent laa defuma lu tax nga may def li nga may def noonu la ko baayam doon wax teewul mu rendi ko deret jëttis moo dugg ci bëtam mu cilmaxa kon nag gis nga moom ma ko reyoon ma nga xamante ni bii moo reyoon bàyyi jàmbur ka mu reyoon bàyyam kookoo ko rey tey mu ne ko Moussa mu ne ko labbeeka mu ne ko yaama laajoon luy maandu te mu ne ko waa mu ne ko maandu tee ngi kon lu la metti bàyyi kook yàlla yàlla la koy fajal defe naa lii doy na bind de waaw lii doy na bind bëgg mu bëgg rek bëgg rek mu bëgg xaji Ibrahim ñun day xam nga ma yag nañu it la wax na sama kàddu ben la man sëñ mustapha Njëgéen moma yar pap Ousseynou Njëgéen lañ ma bayalel Al Khalifa moy suñu kilifa billahi ci pench la tok wax am nga rakete moy man yal nañu yalla sam samal ñu ñaanal ñep oustaz kontaan nañu sàll kontaan nañu lool ñu ngi ñaan yalla seen kóllëre gi yalla na yag gis nga nak guddii ñu toll ni kóllëre sam ko dafa metti de haji ibrahim mi bo daan déglu sidd di nga dégg samedi mu am lu mat juróomi programme programme boo ci ronu bu tollul ni bii dina ko ëpp kon ñoo ñépp tey buñ ko fayoon borom wallahi sidditu jëwam du jóg waaye nag yàllaa ngi fi te yàlla du sànk ji fi aji rafetal Mawlaaya Cheikhul Xalifa nee na saa yi muy bëgg tiit sama xel dem ci ñaar yàlla du jubal pexem warkat waaye yàlla du sànk jëfi aj rafetal parce que yàlla ko gore la kon nag lii mooy peyog yàlla tey yal na yàlla sàmm ñu ngi ñaanal ñepp li ñu bëggoon a wax dama ne woon bu ñu tàmbalee onze heures dañuy joxe bind dugg ci xalima mag ñi waaye suñu sëriñ daara ñëw na lii lañ ñu santoon ñu tijjil ko kon kóllëre gi tey la li ci ñu ba ga insha allah waxtaan wi ñu bàyyi ko ba déwén bu ñu teelee tàmbali bu dugg ci bi nañ dugg kon oustaz ñu ngi lay dalal jàmm di wax ahlan wa sahlan sa bësa ngoog cee sa ngoog li nga ñuy indi la bu ñu ñu ngi ñaan ibrahim Daniel kàddu yi bu ko defee ñu ñaan dem ba déwén <clears throat> ñi ñu tuddul ñépp ñu jéggal ñu waxtu wee xat képp ku ñu tuddul rek ñu ngi lay jéggalu di la baloo bu ñu sañoon tudd ñépp ndax ñépp a ci sonn jigéen ñi waa commission culturelle bi ñoom ñépp rek defe naa sama kàddu day duggaale ci seen kàddu ñoom ñépp li ci des nag incha allah ndokkeel ga ak desitu émission yi ci média yi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ku ñu tuddul buñ ci eggee dinañ la tudd tudde la nañ la war a tudde parce que muy gën a yaatu waaye fi mu ni nii daal xam naa ni maa ngi bëgg a soof sax ndax ñépp bu ñu sañoon fadilatul oustaz jóg yëkkati kàddoom gàmm la ñu bëgg nag yaa xam loo ñuy indil waaye na nga ñu ci raxaaleel gàmm parce que bés bi yonent bee ko moom alayhi salaatu wasalaam moom moom bés bi nag waaw kooku nag ah بغي الله لو ميساج نيخ نيخ نك اه فوك ني بوله كو تي نك كون دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته امين رضي الله تعالى عنه huh. آمين آمين آمين آمين يا رب العالمين أها أها أها آمين يا رب العالمين آمين آمين آمين, آمين يا رب العالمين آمين <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ngeen baal ma sëñ Mbàkke kuy gàmmu day taxaw kuy conférence mooy toog te jéggalu ci micro yi na ci sama kanam ndax gàddu yëpp yombut ndax gis naa fi juróom-ñaar ak ñaar yi ma yor muy juróom-ñeent su ma leen boolee loxo bi dana diis kon na ngeen may ma ma taxaw te yor ñaar yi ji des xëy na danañ ko mën a jël te it jombut léeg-léeg ma dem ba fee ñëw taxaw fii jóge fi dem ba fee ndax kuy gàmm noonu lay def Cheikh Ibrahim maa ngi lay nuyu baax grand frère grand frère maa ngi lay nuyu Assane xam na li xew toogoon nañ fi bi Covid bi jeexee ñu tudde woon ko première gàmmu après Covid kon xëy na noo ngi ci deuxième gàmmu après Covid dem na yàlla na gën a dem yàlla bu mu dellusi ñi ko daan fekkete wuute ko ñi ci faatu yàlla na yàlla yërëm leen ya ca tukki yàlla na ñibbi si jàmm ti indi dara ya ca feebar yàlla na borom bi saafara leen del si nañu kon beneen yoon ci suñu jataay bi ginnaaw bi ñu jaajëfalee Cheikh Muniru mi doon yëkkati jataay mu nun la de Seydou Nuuru nawarallaahu xutaaka di waxtaane waxtaan wow ci sunum pénc moo tudd gàmm mag ñee ko defoon nag ndax bëgg nu xam sallallahu alayhi wa ndax booba daañ wuñ ko jàng ci école ndax tubaab bi mayewutoon école am bim nu indil ñu cay jàng sunu mag tubaab bi mayewu ko non seulement mayewu ko waaye heure bi mu soxla woon moom daawul nangu ko cay jàngale huit heures midi kenn du ci jàngale lu dul te p n m r f l d b mag ñi fexe ba wut ñoom école boo xam ne mobile la mooy fooronoo tànt bala ngaa ñibbi xam dara ci yonent bi buñ ko defee fee def ko fee def ko fee rek ñu baree bari xam ku yonent bi te ku ko xam sopp ko te ku ko sopp texe kon loolu mooy waral gàmm muy dox nak ba dugg ci loxal sama grand frère bi yalla yalla yok le wir sam la samnu sam ki nga xamne suma accès ma mu door ma ben penalty léegi mak Sadio Mané ñoyam bayina raté penalty teg door mu dugg rek Adja Sayida Thiam noo ngi lay nuyu baax yal yàlla fay la nuyul ñu sëriñ bi ndax léeg-léeg nga yëkkati genn xasida ci xasida yi mag ñi ki xam li muy tekki dana xam li ngay wax léeg-léeg nga yëkkati xasida ci xasida yi mag ñi ku xam li muy tekki dana xam li ngay wax kon nag noo ngi lay jaajëfal bu baax a baax loo man ren bu déwén yàlla na nga mën lu ko raw yàlla muy saafara yàlla na saafara te saafara mbokk yi sëñ Mbàkke ki mooy sëñ Mbàkke si la mi may àndal mooy sama ailier gauche ñi xam football depuis japp 1970 xam nañu footballkat bu ñu daan wax Pelé Pelé nak da amone ben ailier gauche buñ doon wax garincha garincha momé bu Pelé dugalé fukki bi juróom ben moo ko Pas passe décisive mooy passe boo xam ne ngay def rek waji day ñew rek laal dugal moy sama garincha Iran xam na li may wax mbokk yi yàlla na jaam yàlla nit ak seen njaboot mu ñëw gàmmul leen ñaari baat dafa am kuñ bëgg xam war koo xam Muhammad la tudd amutu sant amna na dàkkental nag ndax daanañ ko wax gaynde gi haydara waaye nak muhammad la tudd kuñ wax abdullah moy bayam kuñ wax amina moy yayam Cheikh Alxaaji Malik daana wax ne lu ñu ma wax ci yonent bi la ma ca gën a gëm mooy Abdoulaye baayam Amina yaayam Abdallah nag màggatul door a am Muhammad ndax sax amoon na ñaar fukki at bu ko amee la ca tege bariwul mooy message bi Iran tàmbalee léegi jëmee ko ci nun xale yi waaw ñoom mag ñi ñoo yëkkati kàddu gi jëmee ko ci nun xale yi tudd na ci métier ndax ku xeeb sa métier sa métier xeeb la ku gannaawal sa métier sa métier gannaawal la lu waaye def di ca torox rek keneen tedd na ci abdallah bi muy am muhammad màggatu door koo am yéen ñi yéen ñi xam jandeer xam falan falang am mbër la woon moo xam ne daa mën a dóor bañ tudde ko falan falang xam ngeen mooy fil bu daanu ndeke kurpañ ba moo daan fil mbër yi ñuy daanu benn journaliste ca làmb ja ne ko waa yow lu tax nga tudd falan mu ne mooy ku ma mës dóor daanu la ñu ne ko lu la may jooju doole mu ne ndaxte benn benn yax laa lu la may benn yax mu ne ñaari xale ma jur yaay ju tuuti ak papa ju tuuti mu juddu seen diggante moo ma tax am doole lu muy tekki mooy yéen xale yi ku am vingt cinq ans su ko weesoo rek ma ngi bëgg a màggat te ku màggat boo amee doom doom ju tayal lay doon te bëri nelaw te tayal ak bëri nelaw day xañe wërsëg maa la ko wax kon à de vingt cinq ans boo amee takkal boo amul takkal soo mënee takkal soo mënul takkal bu sa yaay d'accord takkal bu dëkkuwul takkal bu sa papa d'accord takkal bu dëkkuwul takkal takk rek takk rek bu la yàlla baaxee bi nga takkee oustaz Iran boo amee juróomi at après na la fekk ci ñaareel ay jabar dañ koy nef ay jabar dañ koy nef une deux trois quatre arrangé na la de <laughs> nee na arrangé naa ko jabara dañ koy nef jàngkati alxuraan yi gis nañ bi yàllay wax ci mbirum jabar mbakke fi mu tàmbalee limba fankihu maa taaba lakum min nisaa yi lu mu wax masnaa mooy ñaata ngeen defe na yàlla munta compter kuy compter lu muy wax un yàlla jóg rek daan ne deux y'a quelque am de yàlla dafa jóg rek na takk leen masna deux wa thulaatha wa rubaa baatu wa wala arafu wa bokkut ak arafu summa bokkut ak arafu fa bu woon fan ki wa maa taaba lakum fa thulaatha baatu fa mooy mën ngaa bàyyi ba ngoon nga takk walla ba suba bu ne summa mën ngaa bàyyi ba juróomi at mbaalu këpp waaye bu ne wa mooy bu say jabar magante <laughs> bu say jabar magante aawoog ñeenteel nañ bokk ci benn génération xam ngeen Sénégal am na ñaari alternance alternance bu maître Wade ak bu maki alternance maître ak bu maki diggante bi ay at la ku takk aawa ca alternance su président Wade ñaare la ci ba maki bi xaw naa soree moo tax génération B ak génération bii du nekk benn jigéen ñëla ci génération bu président maître wad ni ñi defaree soow arrangé wul góor ñi ni ñuy defaree soow ñoom lii la def soow sukar ruuxu def na xam ngeen ruuxu moy bant bi ci def diko korokoro ni gi ci nan depuis alternance beulé ba mu yàgg mu takk ci alternance bi jigéen ñooñu léegi seen soow am na wuute ak soowu ñële alternance bi mu jigéen ñi judd ci alternance mujj bi seen soow day am ay daggiti banaana ay fej pem pom ñu fejar waxal salade de fruits avec sucre vanille avec essence avec un peu de sucre vanille les kimine qui ah ki mais bu naanee soow De te awamir na ne man gor gor gore ka mo sof muy ni mel ni ku yal mat fekk soow mi nga nan mo la tax a jabutu bu la yàlla dimbaliwu te ngay tambale jeng mi dut la saf dara ndax soow suukar ruuxu do dem motax tax teel jabar tel leena ñaarel ñettel ñentel quatre femmes kullu femme treize gosses égal 52 deux gosses ngeen baal ma yéen yor benn jabar yeen waxuma len yeen ñi tok de ñor ben jabar la wax parce que man fi ne ku ma nga sol mbaxana man na la wax ki ñaar la yor wala ben maa la ko wax koo fi seen mbaxana ma léeg-léeg mu def ko nii léeg-léeg mu def ko nii yaa quelque chose bu ko jëmee ci kanamit yàkkel yaa soos chose bu ne ko dajji ci digg bi tey yaa quelque chose yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ko mayoon xel mu set ma li ko mayoon cawarte ga la ko mayoon kàttan ga la ko mayoon maanute ga ak njub ga mooy ñaari gone yooyu ko am moo tax falang tudd falang mu ngi fii ci jandeer bi mu amee ñaar ñooñu am ko namp luñ ko ci seen ween soxna jaam dañoo xam luy nàmpal ñu xam ne capital bi nàmpe ci day tax a yaafuus day tax doo dégg saw làkk day tax a xaw a ragal defe naa ñun ñëpp ñoo bokk seetlu ci senegaal boo ñëwee tey Thiès ni ñuy walaf wolof bokut ak boo demee cël maxam mbàkkol ni ñu làkkee wolof te ñàkk dégg wolof mën na tax message bi nga jox olof yi du jub journalist yi bari ñi nga jaxase daara ak école ñu naan la daara ju kawé ji daara ju kawé ji daara yi sëñ Babacar ji nga nekk daara gën na koo koweel daara yi tafsir ma ba jox ko ba ji daara gën na koo koweel daara jee ca jaamal daara gën na koo kawe léegi nag ñu ne daara ju kawe ji ma ne ah, loolu du wolof de loolu du wolof de daara ju kawe ji kay daara yi alxuraan la te daara it alxuraan dong la nag école la tudd kii tudd daara moo tax bi ko tubaab biy door a samp ci ndar mu tudde ko la médarsa ndax tubaab bi boobu dafa bëggoon ñu ñeme ñu ñeme école am bi mu tudde ko la médarsa jamono yooyu la amoon ay ay cinéma ci dakaar yu mu fexe woon ba ñeme tuur yi cinéma bi mu tudde ko El Mansour bi mu tudde ko Al Hilal bi mu tudde ko Al Akbar xeet yooyu lu tuddee cinéma yi booba mi ngi tàmbalee liggéey pour këf xelu xale yi àbb ko yóbbum réewam delloo si seenu xel ñoom jox leen beneen moo tax bi muy tàmbali di école mu doon tàmbalee ci cour sëñ Mbakke naan la casse de Birama brûle la casse de Birama brûle kuy Birama mooy le noir africain mu ne la casse de Birame brûle lu mu bëggoon bu kaasu Birame brûlé mu indi néeg yoo xam ne ñëpp mënuñu ko am mu fexe ba nit ñi néeg yooyu yitteel leen bu la néeg bi yitteelee te amoo lu ko am léeg-léeg nga jaay sa ngor mbaa sa jom tubaab bi ñu la de Birame brûle bi mu ñu bëggee aayo sunu garambu bi yi mu indi jenn waaye dessin ko biir ba toll nii muy tëj bouton bouton fermeture bi kon ci tubëj ji ci kaw fermeture bi tëjewul tubëj ji ca suuf dafa am lu yaatu lu toll ni noppi nag waa noppi noppi ñay ñu tudd ko padd padd d'éléphant légui nak mu daan né le pantalon du vieux Sidi <laughs> le pantalon du vieux Sidi kuy vieux Sidi moy le noir africain borom jom jooju borom fit woowu borom ngor jooju le noir africain borom kawar gu baramu gi te xalmi di natch motax mam mam su maam ma sa tek loxo ba ci dënd ba walaysa yujibu sawaadal jism safahatal fata mu ne bu leen yaakaar ni mu ko ku weex mooy dem ñuul teewut a dem Iran kaddu yu rëy ngi noonu nee bu leen yaakaar ni ñuy weex ñooy dem du ci arabe ya du ci français ya yëf yi nekkul ci der bu ñuul bi moo dul dem ak der bu weex bi mooy dem déedéet jom fit ngor yo dem ya nañ ko am ngeen am ko tubaab bi nu bëggee aaye sunu laax sunu cere yi suñu ñelang sef ñelang dank laaxu caaxaan serang sunu lekk yooyu nga xam ne day maye wér-gi-yaram te ko sa yaram wér léegi nga gudd fan tubaab bi bëgg nag récupérer suñ ñam yooyu mu indil ñu tootoo la guruma tootoo la guruma kuy tootoo mooy le noir africain lan mooy guruma mu ne tootoo dafa dafa dafa goree di dafa goree di lu mu bëggoon ni ñuy soloo mu changé ko ni ñuy dëkkee mu changé ko ni ñuy lekkee mu changé ko moo tax gis nga léegi foo nu fekk rek ñu nga defee dañoo war a dënk loo xam ne boo koy lekk boo ko dënkul doo ko lekk ceeb daf doon am diw da nga koy bës ba diw gi dañ nga door a sex waaw pourquoi amuñ ko togg sans diw motax tax biñ bi dank jël kuddu mbàkke di pel rek di sex ñi ngi sexaale yeen doon dank mu dañ motax ñun ñepp ñi ngi jabet ñi am yeneen xéeti feebar jigen ñi am euh lolu ñu ne seen biir yi ndeysaan euh, ñu koy tuddé fibrom waaw ñen ñen ñen ñen ñen ñen ñen ña tubaab bi foofu la jaar ba changé suñu palaay yi indi palaay boppam te palaay boppam yi moom la jig waaye nun jiguñu Sëriñ Fàllu nee na kuy suur kilo di sol kiloot ku mu ne kumu kuy sóor kilo di sol kiloot ku sukk mu ne kumu ndax kilo kiloot day taxa day taxa siis ñu da nga daan taaj ñu reer ba suur ceeb cere ja des ñu añ ba suur laax ba des lu ñu la woon ko fi jële bi yonte bi gane àdduna kon nàmpale wuñ ko makka dañoo bëggoon mu am xel am xalaat dégg arab ba noppi dëgër ñu yóbbu ko ca kaw ga sallallahu alayhi wa nun nag xam nga kaw gi moom koo ci wax mu ne diw paysan la diw paysan la walla ñu ne diw euh, baadoolo la mbàkki lu tax bëgg ñu ragal kaw gi ñeme taax yi loolu dafa bokk ci li yombal exode rural waaw dañoo bëggoon ñu ñu ragal kaw gi ñeme taax yi loolu moo yombal exode rural dëgg la fi ne ñu ngi naan nañ dellu ci mbay mi waaye dellu ci mbay mi bu dee slogan walla ab wax ba ab baat lu tax ñu dellu sunu mbay mi mi ngi tàmbalee soppiku ci bi nga xamee ne bu baykat bi di bëgg a bay dañuy jox ku ko jox jiw su bayee ba noppi jaay kuy jaay gerteem sëñ Mbàkke li jëm si ci baykat bi daa am ku mu jaar ñëw ci moom li jóge ci baykat bi jëm ci état walla feneen daa am ku mu jaar jëm ci moom ki muy jaar jëm ci moom bu dee jiw wi buy ñëw jiw lañ koy jox yow gerte la lay jox soo bayee ba noppi di ko jaay da koy mbappat jox la prix bu ko jarul dem jaaye ko prix bu ko jar balaa caag na nga ne golo du bay baa bu nu dunde ñu bàyyi fa lañ def ñëw ci taax yi nii wut suñuy jakartaa di jàkk jakkal man 2013 dama aji màkka yàlla naa fa delluwaat yéen ñii demagul yàlla na ngeen dem ma sànni jamara ba noppi rek ne benn jakarta taxawal mu taxaw ma ne ko xaram mu ne ma naam irkab aywa kam mu daal ne salaas matériel wala boog matériel cent rial di tolloog fii ci jamono yooyu quinze mille francs te daf may jële àllu kaañ indi ma Cees waaye teewul moom laa jël fay ko cent rial journaliste ne ma amuñu chance buñ la gisoon bi nga togg ci jakarta bi ba ñu am ci benn photo non sunu sunu <laughs> kon sunu ceeb tooy heureusement gisuñu ma bi mu nàmpee mère bi ko doon nàmpal sunu yaay alimatu boo demee baqiya Iran ñaari xabru ñoo fa gën a feeñ bosu Ousmane ak bosam ñaari fa gën a feeñ bosu Ousmane mën na ci digg ba ak bosam ba na ca koñ ba ca ca ca cat la lu tax ba su Ousmane ca digg ba Iran kera bi gaay a gawee kër Ousmane ci wàllu politique ak ni muy doxe ci àdduna ku ci amul certificat ci politique demal jàngi ba am ko bul doyloo certificat fexeel ba am befemu politique bul ko doyloo fexeel ba am bagu politique ban bag série S léegi tey kenn du la mën a nax ci politique gis nga nun nun ngay daara yi mag Seydou Nourou ak Iran ak ñi mel ni ñun ñoom Mbàkke ak ñu nu demee alxuraan daf noo jàngal politik waaye gaa yi jàng tubaab bi jàngaluñu politique moo tax sunum réew seppi suñuy loxo teg fële neleen leen eh nous sommes waaye bu nu bàyyi woon ñu def suñuy parti kenn topp kenn ku dul noonu maa la ko wax déggoon ngeen fi sunu sunu slogan ba mos leen daara ji 2012 il a Assemblée nationale législative 2012 nous, ñu Sénégal nous, leen mos leen daara ji malheureusement mosuñu ko parce que Rio, mi réewum aada la jàpp nañ ne ab du politique du wax ci politique waaye ñiy top, média Iran ba dem ci dëkk bu ñuy wax Algérie ci 1979 jàpp ci 80 jamono ñoom Abbas Madani jamono ñoom Belhaj xam nañ ne message su daara alxitaabu diini laa badila lahu kero bi ñu tàmbalee dañu ne woon réew mi am na démocratie ku mën a nodd abbas ma dari am partim liñu laaj lepp mu joxe ko deuxième parti bi tuddu bel xaaj ñu tambalé campagne nit ñi tambalé leen top rew ma ne len yeen amatu len sañ-sañu meeting ñu meeting ya yam ca jakk yak ya jumaaya tëj jumaa moo gën a neex a meeting laaj ma ko mag sëñ Mbàkke kër ba ñu demee Kaolack benn doomu sëñ Muxtada ne ma fii may toog di ba day laa bëgg nga toog fee tey meeting xam nga koo xam ne boo ñëwee boo ne alhamdulilah ñëpp ne selaw loo wax ñu dégg la bokkut ak kii ñu naan camarade mesdames messieurs déglu leen kenn du dégg mais ajuma alhamdulilah ñëpp ne selaw bel xaas message kero bi ñu watee nga ñaay lam am musul am ci Afrique ñu saax-saaxee ko def ko ci kaso bi saax-saaxee deuxième partie bi def ko ci kaso bi ñu daal dékk benn benn xale nag micro ne ko ah xanaa jaaxle ngeen de xale bi ne ci lan ñu ne ko ah tëj seen première partie bi tëj deuxième bi ngeen jëm ci élection xale bi ne ko non ñun suñu secrétaire général parti kenn mënu koo tëj ñu ne ko ah ne ci kaso mu ne leen déet kooku du suñu du suñu secrétaire parti de kum don mu ne allahu subhanahu wa taala kuy deuxième partie bi mu ne muhammadun rasulullah tubaab ba jaxle nya nga ca kasso ba gagner élection yi lol nak alquran dongo ko man l'islam dongo ko man rasulullah ali sallallahu wasalaam dong moo moko man bi mu ba fer ba ñew yaayam ne ko comme nun dunu sénégalais dangay dem Madina vacances lu tax ma ne dunu sénégalais sëñ Mbàkke bu njëkk sama doom day dem kër Nogay vacances fa naan soow naan ci seyaan yi war ci mbaam yi war ci fas yi tawte bu del see dëgër këng léegi nawetaan yi tax na kenn dematul vacance la ca tege mooy commercialisé nañ ko da nga si jigéen joo xam ne bii bu doomam demee vacance bu indiwul xaalis ak yére bu dewee na lu dem affaire bi commencé yàqu foofu moo tax am na ci yéen ñoo xam ne cil ma lañ dëkk waaye fi ne bu fa demoon tey sëñ Mbàkke danañ xogguli ko ba waa cil ma xam mbaakul defe ne ñi ñi Bordeaux lañ jóge waaw looloo ko waral sunu suñu benn frère Iran dafa takk jabar dakaar yóbbu ko càlle jigéen ñi dafa am lu ñu tuddee jëlib dawal jëlib dawal moo yàgg jigéen ñi yéen ñëpp ànd mu root yenu jóge ca teen ba bu ñëwee ni jëkkëram najaay kaay yenni ma jigéen ñi xam nañ ko najaay kaay yenni ma bu dee jëkkër ju complexe yooyu ak ah, toogal waa yow ah toogal ndeysaan am na jëkkër yu compliqué te complexe te mën a gérer détail nañ ma baal les jëkkër très malade waaw jëlib dawal donc bi mu takkee jabar ji takka ko dakaar indi ko càlle Iran xale bu jigéen bi jëlib dawal ñëw ci teen bi naan leen pax bi lu mu doon <laughs> teen bi kat lay wax mu taxaw fël na leen pax bi lu mu doon ñu ne ko lii teen la mu ne teen c'est quoi ñu ne ko ci lañuy naan mu ne naan non te kat dëkkul càlle de waaye papaam yëg yooyu tay ba cekkeen lañ dëkk gii mu dem dakaar rek ñëw naan tax bi lu mu doon waaw gis nga nit complexe baaxul complexe baaxul yàlla ci yàlla musal hmm? jóge ci dëkk bi dem ci dëkk bi rek ñoo bëgg lakkal nit ñi wit aka bari ak bari moo ñaari nit ci rew mi ñuma ñuma estimer lañu moy wa xisbu tarix yi ak mustarshiduna wal mustarshidat yi non neex nañu ma lol parce que nit personnalité dafa bax ci mom nit day wax je suis là maa ngi nii loolu lay wax waaye lu xew rek yóbbu la non du loolu loolu am de waaw ah. tey nogay bi muy nekk jànq defe na ne kawaram yi bu ko léttoo du rafet day dem ca bitig ba jënd ay kawar yow yaa ngi ami kawar di jënd ay kawar fi la complexe yëpp am déet say yaa sayda caam ami kawar di jëndi kawar te ni yàlla defere kawaru jigéen defari ko kawaru Alioune Sall kon yaa quelque chose moo tax bi létt yooyu xewee létt yi xew gurug létt xewi kenn yeetul gurug létt parce que létt yépp niroo léegi fa am ñax rek yow ci bopp bi ah waaw bu njëkk dangay ñëw ñu lett la xajal la bopp bi ak ak rabbu am déet lett yi léeg-léeg suñ mbàkke mu jóge fii jëm fii ñu tudde ko renversé léeg-léeg mu jóge fii jëm fii ñu tudde ko bul demagum bul demagum waaw ah, lett yi façon bu ne moo daan am la tàmbalee ca nguuka ba nga ñëwee ci yii complexe moo tax yaayu yaayu Muhammad yóbbu ko Madina ne ko say nijaayu ngi nii fii nga bokk xolal Iran kooku am juróomi at dem cay nijaayam am juróom fukki at dellusi juróomi at mu dem cay nijaayam juróom fukki at mu dellusi bi mu dellusee lu ñuy wax sunu doom ji di moo nekk nii ah ma màgg na léegi di muy leen yàllaa ma ñoo ko wax nga dëgg bu jax tak ba tax ku bàyyi say bokk say bokk bàyyi la doo dem waaw ku bàyyi say bokk say bokk bàyyi la doo dem dañ fonk bokk yaayam yóbbu ko vacances vacances yi jeex yaayam di ko delloo ji màkka faatu ja yoon wa ndax changement de climat yo ya nekkoon foofa jamono yooya mii xutu na dikku laaj ko saaba yi ba ñuy door a gàddaay sëñ Mbàkke ñépp siburu siburu su Madina moo tax bu ñuy aj màkk ni gis ñuy def vaccin euh, vaccin yooyu nga xam ne mooy dox diggante nit ki ak siburu yu Madina ak siburu yu màkk lu am solo la yaayam daal di faatu ñu yët ko baayam abu ab maamam abdul muttalib abdul muttalib faatu ñu jox ko baayam bu ñu tuddee abu taalib loolu Iran doon junj ma jël siwaat ci bi ñu ko jox abu taalib 17 ans la am 17 ans mu xëy rek ne baayam abu taalib papa mu ne ah mu ne ko ba bëggatuma ci kër gi ñu may yóbbaale mu ne ko lu yóbbaale mu ne ñuy joxe dépense te du ma joxe léegi nooy def mu ne damay xëy fi ngeen di xëy di def li may def li ngeen di def su ngeen ñëwati ci kër gi di joxe dépense ma def ni ngeen def mos naa dégg Iran muy jàngale nee na bu oto bi chargé bay dem taxaw puut lu yàgg ñëpp di kaas nga gis ku ne cell daa o dénk ko moo tax xale bu góor bés buñ ne ko yaa goog départ na xale bu góor buñ la waxee yaa goog lii da nga koo man rek départ nga mooy gone gu góor gu xëy na baayam sas ma ceebu kër gi wala sas ma facture courant bi wala ma sas daara ji ci daaru ci bu Iran jenn waaye damaa may terrain ba benn hectare li may wax nag ma gëm ko moo yaa goob mu ubbi compte sama compte quarante moo ca nekk may wooti tegum xeer sama compte quarante cinq moo ca nekk may woote tegum xeer waaw daaru ci bu tegum xeer mi dar sàngam nag nangam dëgëru fit dong te booba daara ji téeméeri million ak fukki million moo koy defar cinquante quarante cinq mille la am dog dog nga yoon wa dañoo àgg toog mu dem toog ci ker goo xam ne ku dul yonent doo ca toog ndax ker ga garab ga amuti xob te garab gu amuti xob vraiment ker gi philosophe dëgg ci mën a toog waaw noonu ko suquraat daan defee suquraat xam naa am ñu ko am ci yéen suquraat day dox bëccëg ŋàbbu tors suquraat bëccëg laa wax de mu ŋàbbu torsu taal ko damay seet si fu maanu te gi yem loolu la mu fi indi woon ko si yaa maanu waaw loolu la ko ca tegal moo tax ca daaliyaam bu neex ba ndeysaan ca la ko doon waxe waman lii bi ustaasin aluusu bi wirdihi yaqiini yaqiinan kulla hawlin bi mawlidi dellu ci yi téere yi làbbe yi nee nañ garab gee ku fa toog kon gone gee toog moom ku mu ñu commencé def enquête labe bi bu def enquête daf leen invité añ ñuy ñëw di añ si daal ni Muhammad comme 17 ans la toogal ci bagage yi xool ko bu ñuy ñëw àndaale la sa añ labbe bi xool xool gisul xale bi mu ne yéen nii ngeen yem sëñ Mbàkke ki jiitu yoon wi ne ko waaw ñii lañ toll mu ne ah nii ah, ah, ah, am na gone gu nekk ca saako ya labbe bi ne kooke de moo tax ma invité leen waaw <laughs> dama masa am dañoo masa am benn problème ak genn góor ca dakaar ak benn terrain mu ne kii kum doon diw ñu ne ko waaw mu ne allahu akbar terrain bi day bis naka te yéena ko moom ak la ca tege waaw ñu añ nag làmb poosam jox ma benn penalty ah oui bàyyi naa rati penalti maag Sadio mane waaye labbe bi ne leen kii moo tax mi imité Iran ana kii baayam Abu Talib ne ko may baayam mu ne ko ah mu ne ko noo maag baayam ma bokk baay mu ne waaw kay ana yaayam ñu ne ko yaayam daal làqu mu ne leen gone gi gii munta nekk ci àdduna baayam nekk fi yaayam nekk fi lu tax alam yajidka yatiman fa awa mu niru yàlla bi mu bëggee defar daf naan gay yi leen ma defar nit bàyyi mi ngi dund defar ko tëla walla defar ko tëkko waaye moom baayam ko fi yàlla ne ko ma lay defar alam yajidka yatiman fa aawa noonu la ko defal labbe ba ne leen kii bu génnaatee ku mel ni man gis ko da koy rey ndax lañuy ñuy naqari ëllëg gone gi moo ñu koy teg allahu akbar papaam ne ko yaa ci dégg de mu ne ko waaw mu ne kon nag toogal ca kër ga mu ne ko waxi labbe bi du ma tax a toog moom kay mën naa ñàkk ñëw am ab dëkkam waaye nag damay continuer liggéey nag looy liggéeyee mbokk yi benn affaire ngoog looy liggéeyee comme defoo commerce mu ne damay sàmm damay sàmm ay xar mbokk yi ndekk yonent bi sàmm na ay xar ndam metti muñ xeb fi bay Cheikh cheikh Thiès le deuk ku meuna a théâtre la Iran bay Cheikh cheikh xawmu ma mi fi am déet dafa am bis muy théâtre xeb metti am xale bi jigen bu tabarkàlla mo dàq nogo yi nopp xale bu góor ndek xale bu góor bi day débouché ay douce bu wàccee rek sangu sol ay yéreem ñëw ci kër gi maye 5000 ba lako jégué ko jigen mi ne ko lool kar kaar ci ci théâtre bi ben bis mu acci di ñibbi rek seen ko ci liggéey ba seen ko ci liggéey ba rek na ci suuf kekk loy joy mu nako buma xamone da ngay da ngay déboucher douze duma la nopp loolu tax na gaa yi di xeeb métier waaw xeeb métier su ma xamoon ne dangay ngay débouché douze du la nopp waaw kon léegi moom lan lan la nopp ñi ngi netti li dafa amoon góor gu daan wax Cheikh Ibra Fall Iran mu dem Ndar solu ñëw di yalwaan añ kër gu mu dem rek ñii ne ko añ ba añ ba àgg na ñu naan ko foo koy def ci ëllëg sa nag mu solu ñëw ci kër gi ne day yalwaan añ ñu ne ko góor gi ñëwal raxasul sukk sëñ Mbàkke mu raxasu sukk bu tibbee dank ba mu jag rek mu def ci poos bu dankee ba mu jekk rek mu def ci poste ñu ne ko waaye góor gi ak sa yiwaay bii ak ni nga mel ak sa jëf jii mu naa ah, jëf jii may jëf kat daañu jigéen jëfoon démb juñ jëfoon démb mu ne na ma soloo woon tax na waxuma leen kaay añ waaye nangu leen maa sarax ma solu tey ngeen ma kaay sukk kon yére yi ngeen woo añ comme moom ngeen woo añ nag man lu ma lekk li ngeen ko wooyee moom laa koy jox moom yëre yi ñëpp ne këpp <laughs> ah, waaw tey ñun ci sunu dëkk bii réew mi xam nga léeg-léeg ñuy defal nit loo xam ne yére yaa tax ñu def ko ah moo tax nit ñu sonn lool ci yére lay sànn yal na yàlla yërëm yonent bi ne day sàmm xar mu ñëw ci dëkk bi ku am xar jox ko bu weer dee nga jox ko fanweeri dërëm foog nga am xar yu bari door am tuuti xaalis noonu koy ndeysaan gone yi jaay ndox di defee man léeg-léeg sama yaram daw lool bu ma fekkee gone gu jigéen guy jaay ndox mbuusi ndox yi téeméer mbuus ngay jaay doo am juróom fukk dërëm ne ci naaju rek ndeysaan naab bu mbuus yi affaire bu daw yaram la nag góor sax ci tane ah mais jigéen ñuy jaay ndox ndeysaan mbuusi ndox mbuus ñaar dërëm siwo bi bu feesoon dell boo ko jaay ba noppi ñaata nga yaram lu daw yaram la waaye nag xeebul métier yonent bi di sàmm waaye xam nga <laughs> am na ci jigéen ñoo xam ne ñoo ngi nogoye ya mbàkke dañuy bindu seen xar jox yonent bi fukki xar ak juróom fukki xar ak juróom xar mu ne fanweeri dërëm buñ la joxee xaaj bi nga sàkkal ko pexe ba noppi nag di ko lay moo tax usaas yi woon ci àll bi yëpp ilaa Dakar oustaz day jàngale ba weer bi dee xëy na daara yi suñu Babacar Si duñ def noonu waaye ñun suñu école yi naa nekk da ngay jàngale ba weer bi dee ñu war laa fay 3000 francs jeeg bi jëkkëram jox na ko mille pour mu jox ko oustaz mu dem tege ko ca teg ba mbaa mu yóbbu ko ca ndawtal ya naan la oustaz bu yóbbante bi ñëwee rek ba muy ñetti weer bu dee ku mel ni man day dàq gone ga waaye bu dee ku mel ni Iran du dàq gone ga day wax ne ah na toog jàng rek yàlla baax na yonent bi nu lañ ko doon def ci xar yi léeg-léeg nga fay ko léeg-léeg nga sëgg léeg nga fay ko léeg-léeg nga sëgg ba affaire bi sàkk ko muy changé muy changé liggéey sallallahu alayhi wa sallam mu dégg jigéen ñuy wax Khadija ñu ne day jël ay gone ñuy liggéey mu di leen fay Xadija ku bari la woon la waaw mos naa cee nettali benn nettali bi bi Moustapha Serigne Moustapha si Moustarchidina wala Moustarchidaati bi mu demee euh, Mauritanie muy siite nettali booba ne leen damaa dégg ci suñu menn mbokk mu wax Oustaz Alioune Sall muy nettali lii kaay la ma nettali leen ko nettali bu am solo nag la waaye daal yonent bi daal defar dossier am ñëw déposé xam nga dossier dañ leen tegale Iran da nga jël bi ci kaw entretien ak moom jël bi ci tege entretien ak moom jël bi ci tege entretien ak moom mu jël dossier bi ci kaw commande bi mu ne man la Matar Matar tok xadi war def mu entretien lu say tank mu ne dama fi jaaroon quoi bëgg bon dégg ñu ne da nga joxe joba ah, ma jaar pour ki ci job yi quoi xadi ne yow lay wax ni ko non job bi la dégg quoi mu don jaar don ko caajan ah, pour nangam xadi ne togal fee. daane beneen booy acca loolu say tànk ne ko non xam nga gars yi bon dégg naa ñi ne da ngay joxe liggéey ah ma doon ko càcc si mu ne demal toog fee <laughs> gis nga Iran xale yu góor yu bare bare bari problème bu la ñu am maa la ko wax damaa mos a xëy commissariat bu Géejawaay commissaire yi moom may dégg booy yi di jël si seen signature seen papier yi fukk ak benn ñooy ñëw kenn jël waaw commissaire lu woon na ko non dama jaaroon na di xol ba xam ki nañ ko quoi bon mu ni yow loy wax ni manam kenn <laughs> man sax leg leg dama seet boy lu ñu def ba am soxna quoi lan lañuy wax nan lañuy dialogue <laughs> fi <laughs> waaye bi mu agsee ci dossier yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko noo tudd mu ne ko Muhammad ibnu Abdullah ana sa waajur mu ne ko génn na kuy sa yaay mu ne ko Aminatu bint Wahb ibnu Abdu Manaaf ana mu mu ne ko génn àdduna du loon say tànk mu ne ko wut liggéey looy dee liggéey sàmm sama dignité sama personnalité Xadija daal di koy xoolaat ne ko ñaataan nga am mu ne ko maa ngi ci vingt cinq ans Xadija ne ko baax na bu subaa xëy si mbokk yi kuy wut liggéey nun ngay def daa ngeen seetaan ma jege jigéey ak euh, góor ga samton mbay alaaji mor mbay ñoo ñoo dàqa théâtre ci senegaal ma xoroja day wut si liggéey alaaji Moor Mbay ne ko waaye looy wut mu ne ko liggéey mu ne ko ak sa yu dand yi seetete <laughs> waaye yonent bi wax ko wax ju correct message bi nag jàll ci suñ yaay Xadija ndax Iran góor guy wut jabar ci message am lañ koy xamee sëñ Mbàkke sama dia ga de ba masaan ñew ne da ngay wut jabar benn daf lay taaj gerte tiaf mbaa mu jox la man ab tangal tangal bege <laughs> bu la joxe gerte tiaf soy jël par ben di boxam di sex bu jexé da nga am jabar waye boo tibbee mak, gerte tiaf ku koy mak. te juróom fukki gerte caaf li muy saf la benn gerte caaf di saf tee ngaa teggi par benn rek comme ñëpp waaye nga ne xoj na ko boxa waj góor ga ne la demal ñibbi ku munte tey lu gerte caaf lekk ko par benn par benn munoo yor jigéen acca wala mu jox la tàngal mante fraîche mbaa tàngal bége nga sex muy macc nag ngeen di waxtaan ana seen wa keur mba yaangi am jam bu degge nga ne ko kuruj ñak nga jabar moy la ku munta muñal tangal ci gemmiñam munta muñal jigen am déet dal ko jigen tangal dañ koy macc di macc bam jeex tak ko la jox jigen nga yoro waaye macc ko ñaari dóor dóor ko sell kuruj góor gi dàq la lu am solo la yonent bi kon wax ak suñu yaay Xadija wax ba correct mu ne ko kon bu subaa ñëwal ma boole laak may sara mu defal stage ndax ku jàng ba noppi dañ lay defal stage jàngal la nu ñuy jàngalee gis nga ñi mën a jàng Iran te jàngalu leen nu ñuy jàngale jàngalee fuñ jàngalee mere nañu jàngal nañu jàngal mere leen maa la ko wax parce que technique de communication bi moo dul baax dafa am xale bu ma sa ñëw ñu koy jàngal nu ñuy nu ñuy wootee ci diine daawa lañ koy tuddee nu ñuy wootee ci diine ñu jàngal ko théorie bi te jàngaluñ ko pratique mu dem tàmbali mu dem tàmbali ñëw ci jàkk ji imaam ji xutba rek wax dara rek mun na ñokket na ko da ngay kàcc de loolu la wax ilimaan waa jàkk ji summi seen dàll yi mbàkke di ko ko duur di ko ko duur ba mu sonn lool mu ñëw ci cheikh bi koy jàngal ak yaramam wu ci ne ko waaye lu xew mu ne ko damaa gis fee jàkka yéefër gis nga de moom moo munut li muy def ñu duma ko mu tudde leen jàkka yéefër fan la jàkka yéefër am théorie bi la la jàng pratiqué góor ga ne ko lu xew mu nettali ko xissa bi mu ne ko baax na bu àjjumaa ñu dem jangal na la théorie da nga yakamti bu aljuma mo jangal la pratique bi mu ñew iliman wax lam waxon ca khutba ba mu nan ni imam mi ngi mi ngi voilà tu vois mi ngi ki deugal wax mom mi ngi yakamti pour imam dal ci koom lutax parce que mom da bëgg mu dal ci koom lool baxul lool baxul dama ma sam ben conférence Iran ki kii dirigé jataay bi ne ma gis nga fii moom payi payi nii rek ma ne ko luy loolu mu ne ma no payi fii moom comme dañoo dëgër bopp rek ma ne ko man lu ma joteeg payi am ah, mbàkke man kay naa wax li ma fi indi te defe ko noo xam ne xay na ma tollook ñoom fréquence benn ma wàcc ba tolloog ñoom mbaa mu yëkk ci la ñu tolloog man su ma noppee ku ci gis boppam yóbbu waaye nekk fi naan paay la sawara jox na ma ne ko yow maanaam soxor ci ba moom ni mu koy wax ci gémmiñ gi sax da nga yëg ni kii non loolu du noonu mu naan ji gi wala wala mu ngi wala wax na ko wax leen ci góor gën a cell bañ julli ba sëlmal mu ñëw ci ilimaan ne ko man de damaa am lu may wax ci yow ndax waa jàkk ji xamuñu la ma bëggoon ko ma jox micro bi ma wax leen yaay kan imaam ne ko tafaddal tafaddal tafaddal <laughs> imaam nag am na sikkim bu baax waaw mu daal ne yi maa ngi leen di nuyu wàllu yu kaamil a ngi nii imaam ju doy waar a ngi nii te am am cër ci yàlla tagg ba imaam di def nii nag mu ne leen sikkiñam bii ku ci am genn kawar rek da am alal seeram aram na sawar nit ña songu ilimaan di xos muy yuuxu ñuy xëcc muy yuuxu Wajah jak ji yeb ku ci ne bëgg nga am ci kawaru iliman gor gi ne mana sa khutba bi suma la baye da nga ci delu wata ne ko tey lay muju mu bi ni la ñuy dafa am yoon woy jaar boko do dem laaj ko caabi ci bunti ko sama gaa yor ay site internet sama jambar yi ku ci nek li ngay def amna ciabi bop boko jotul do ko ubbi waw mala ko wax boo ne machine bi taf munela ne mot de passe nga ne ko ko caw ci dess ndeysal gaay yi ñokay waw ni ci directeur ni denc ak neuf machallah bal ma nak parce que comme man ci lay ki motax ma man ko ki dégg nga yonent bi ñu ne kon kii moo lay defal stage ndekete ki koy defal stage moom moo koy defal stage may sarata la tudd waaw Seydou may sara dem ne mooy jàngal yonent bi nu ñuy jaaye ndeke yonent moom tey la koy jàngal nu ñuy jaayee nuy dem mu ne ko nan jaar ci restaurant bi añ ci bi ne ko ah dafa bokkoon ci kay de charge bi mu ne ko non mais kuy liggéey ci xaalis kay dañ ciy lekk mu ne ko ba mu des ñun ba mu des ñun nañ ci naan ndox mu sedd mu ne ah ndox de mënuñ koo ñàkk naan waaye mu sedd mi day yàqum xaalis la tisbaar jot boobu julli ñëwagut nit ña toog ca ker ga yonent bi toog fii ker ga bàyyi leen fa ñëw ci moom maysar ne ah mu gis marché baa ngi bari ay weñ ni marché bi nawet ndeysaan léeg-léeg gis jigéen ñu Iran jóge marché ndeysaan marché bu bëri ay weñ waaw te li seen jëkkër joxe mëtul am na jëkkër yoo xam ne keroog ba ñu amee indépendance 1960 ba léegi jàpp nañ ne dépense moom 1500 rek la laaj ko jigéen ñi moo tax bu ñu jógee marché ku la romb di macc crème rek dépense am matut jigéen ju jógee marché nga seen ko bi macc crème dépense baa matut mu dox lu ba sonn ndeysaan jaar ca jaay ko te këram ba ne ko jaay ma ci bu ma seerloo bi nu bi nu jaayee bay ñibbisi nag yonent bi ne may sarata commerçant du jaay lim am lépp ŋàbb xaalis ba yëpp patron mu ne ko nu ñuy def mu ne ko comme ñoo ngi jawbe dañuy jënd màdd jënd keccax jënd yuufuug jënd nangam bu ñu demee ma Madina Makka kon buñ ko jaayee mooy ëpp ñu yóbbu xaalis bi noonu rek ñu defaat noonu bu ñu agsee suñu naay Xadija ne may sara defal ma contrat bi ci seen voyage bi mu ne ko kii ma àndal doon ko won lu ñuy jaayee moo ma doon wan lu ñuy jaayee ko ah mu ne ko maa ko wax man dama daan dugg restaurant añ ba desal tey nee na duñ dugg restaurant ndax xaalis bi si def xaalis ma ne ko ndox mu sedd mu ne ma sedd lu ci yoonam te bu ñuy ñibbi si dañoo jënd ca jawbe lu ñuy jaay si waat madina màkk kon suñ laay xadija Mouhamad vingt cinq ans la am moom quarante ans mage ko quinze ans mu xam ne xalib bii responsable la ku sérieux ngi nii ku mat jëkkër a ngi nii bu nangoo bu meer <laughs> xam nga Dakar xale bu fi jóg di bu meer tey sa yaay gàddu wet maa la ko wax laaj ko xale yi doo takku maire duñ la bàyyi nga takk handicapé maa la ko wax de duñ la bàyyi ku bokkul du sant maire yii ñoo koy def yonent bi may sara def compte rendu bi ba jeexal suñ lay Xadija teg ca baat yu rafet waaye xam na ne jigéen Iran su bëggee ba noppi waxal ko boppam bu ko waxee ku amul niveau <laughs> jigéen bëggal boppam nit waxal ko boppam kam ko wax ajaa caam su bëgg su amul niveau bu subaa nga génn ci site internet yi ndax lan daf lay daf lay daf lay vidéo wala mu audio la mbaam whatsapp la man démb diw daf ma doon daf ma doon quoi waaw ah dafa don déclarer quoi manam baat yi mu wax ne dama la bëgg mom ngay grandiro chim su khadija xam loolu daa di woo jigéen ju am niveau comme soxna Seyda chammi mi macha allah daat ne mu ñu ko tuddee Nafisa mu ne Nafisa mu naa ah, mu ne ko am na lu xew de lu xew mu ne ko sama gone gi ma joxoon am njaay bërki démb mu jaay man de maa ko mag maa ko mag de waaye su ma ko amoon comme boroom kër di jël Nafisa ne ko teg ko ci sama loxo mu góob teg sama loxo bu doon ko amul niveau day ñew mu ne ko waye yeen ne sa patron bi def la bëgg aduna tukki ah waaw waxtaan ak mom ah waaw Muhammad naka seen tukki mu ne dem nañ ci jamm ñew ci jamm naka njaay mi jarna ah mba sonu len tuti rek ah na ngeen def nak ñoo ngi fi waaw ana seen patron bu jigen bi Khadija mu ne ma nga fa aha waaye denc nga soxnaam déedéet denc gu ma de waaw ah, sa xel nekk na ci am mu ne waaw góor saa bu amee vingt cinq ans xelam a ci denc mu ne ko waaw fi ne ndax sa xel a ci denc kenn mu ne ko fi mu nekk xel mu nekk nekkagul ci kenn man de damaa bëgg waxtaan ak sa patron bi bu fekkee xelam a ci yow nga denc ko patron ban la la ndaw sa doon ñol ñoli mbàkk ba jëkkër ji wacc ko ñu defaraat mu ko ñu defaraat mu wàccaat ko léegi nag ki ko doon daggal garab yi comme nee na day baax de sew ji mu dem ca jàkk ji rek Iran daan leen may leen ma móoru jë ñu may ko móoru jë te dégg nañ ñu ne buñ la mayee kuy baax de saw ji dalay joxub ay mu ñëw ne ko moor xuja kaay mu ñëw mu ne ko toogal ci lalam bi de waa ñi muta toog ko toogal dañ ma laa may mu mbëkk bunt ba rek ñibbi xombal ndaw sa na ñëw di ma laaj ba xam ndax baadu saw ji boobu baax na walla déet gis nga niveau dafa baax ci message yooyu nafi sa wax ba alayhi salaatu wasalaam ji euh, stable mu wax ak moom ci ah, jërëjëf mu wax ak moom ci may ko patron bi ndax bu amee jël yonent bi jox ko kàddu gu waaw ñu may ko suñu lay Xadija ñu may ko suñ yaay Xadija muy aawoom te aawo bee ko mag am na ñu ne mage na ko fukki at ak juróom waaye yàqu ci dara a jabar ju mag jëkkër c'est bon jëkkër ju jabar c'est bon li li ci li ci muufee rek mooy ñu bañ a tolloo niveau intellectuel booy takk jabar te ne ci daara ji boo amee niveau daara baax na moom bu amee niveau école waaye bu amee niveau école te amoo niveau daara boo ci duggee goro du yàgg ndax xalaati intellectuel بوكو تخلاتي كو امول نيفو دارا نخ لو موم دا سي دوغال تي بو امول نيفو دا خيبي خلاتام تي كوي خيب اي خلاتام ليم خيب لا لاج لاج كو ني تاك انتليكتوال انتليكتوال nga xam ne boo ñëwee ci kër gi ñeme ndox du ngeen dem te góor góor seen fu toog mu yor wantaay ñemewul ndox maa la ko wax te intellectuel bi day bëgg ngay sangu di peñewu di parfum te booy dox di cukkur cukkur yi waaye yeneen nii boo ko fi bëggee def léeg gis ko am jëkkër rek ndeysaan ñu am problème bu toll ni ñay te dara wóor na ko lu dul waa ji du bu agsi si bu ne ko salaamaaleykum xet gii génn rek tas nëb sëy sa gémmiñ ngi daa xasaw nuyoo ko wax sa jëkkër dëgg la di waaye nag léeg-léeg Iran jigéen ñi ñooy def loolu ñoom it boo amee jëkkër ju ragal ndox danga nga koy entraîner entraînement ngay def ak moom boo amul boo amul sauf o da teg gaas bi tàngal ndox mi te bum bax na nugg nga yokk ci tuuti ndox jël sarbit bu weex tàll ñëw teg ko ci kaw ay poojam sukk ci pooj yi ne ko taga tegal naa la ndox te ne ci yàlla baxam waaye war ngaa sangu de boo ko wexe da ñéeg du sangu war ngaa sangu de sa moroom yekk fi nekk di sangu du sangu de te gaay yi am na ñoo xam ne ñi muñ ndox nag ma wax la ko tey une seule fois la ñuy sangu par semaine ci des yëpp dañuy xëppoo ndox ñen ñi dañuy dagg leer yenn xale yu góor yi dañuy dagg leer dagg leer mooy bu ñuy bëgg a génn dañuy sëlmoog saagu fomp seen xar kanam rek góo <laughs> maa ngi bàkke dañoo mas a dem dëkk bu ñuy wax euh, gànjool may waxtaan ci lu mel nii ndeysaan benn meer jóge ca jigéen ña ndeysaan ñëw ba ci jëkkër ji ne ko yaa ngi ciy dégg ñun ñëpp ñu ne këpp parce que yiñ doon wax moom ba sañoon jëkkër ji loolu lay def te jëkkër ji paa la paa bi ne ko suñu khadija aja cham ali sallallahu alaihi wasallam denc ko mu mag ko 40 ans ba nopi am ak moom juróom benn dom 40 ans am ak moom juróom benn dom te jigen bu amé 50 japp 60 mu ne pause léeg-léeg sax du ci àgg moo tax suñu yaay Xadija dafa defutoon planning familial bu defoon planning ñaari bébé lay am planning mooy lu tubaab biy def ba tax ñun duutu ñu bëri nit defe naa ñu ngi recensé recensement yi ñëw nañ Thiès commencé nañ dañoo bëgg xam ñun sénégalais ñaata lañ dégg naa bi ko mujjee def 17 millions la ñu. nous avons nous millions euh, euh, quatre gosses les jours femmes 13 gosses fois 4 égale 52 kon ni millions 70, 80 millions kenn du ñu wax la ko waaye suñu yaakaar yëpp deful planning familial jigéen ñi nag léeg-léeg ñu def ko am jenn doom am ñaar sage-femme bi ne la noppalul nag moom lu mu la noppaloo ak est-ce que noppalu jot na gis nga suñu borom dafa planifié amum doom musuma gisi bébé bu wasin musumaa gis bébé bu wasiw wala yéen mas ngeen koo gis am na as ba boo ca tollee doo gis baax bay wasin mu am as bu boo ca tollee dootoo gis baax bay wasin diggante bi nag bàyyeel sa bopp suñu borom wasin boot nàmpal bàcc feral ëmbaat boot bàcc nàmpal feral ëmbaat muy de goos boot bàcc nampal feral ëmbaat muy trois goos yàgg moom ba treize goos gis nga kenn musta gis jigéen ju jaboot màggatum rank te du ma saam jigéen ju jaboot Iran am fukki doom mbaa juróom-ñett mbaa juróom-ñeent ba noppi màgga tumuranke yàlla melut noonu laaj ko Seydou Nooru mais doon wax léegi ci maandu teg suñu borom bu juróom ñeent ci sa doom yi da ci am ñett ñoo xam ne kenn ki moo la gën kenn ki yéen a yem kenn ki moo la yées ki la yées moo lay jooyloo ku la yab moo tax kenn ki moo la gën moo la yóbbu màkka moo lay def moo lay tabaxal kër ki yem ak yow nag moo yow a yem ni nga mel lay mel moom la papaam di gën a wóolu sax ci yow léeg-léeg bu yow moo koy defaral ndékki am ci xal wi jeeg ji am doom xam ne li may wax nii waaye deux gosses benn bu jigéen ak bu góor bu jigéen bi day day xam ne ganaar la ci walla ndoo wi nu ko neex lay gise bu góor bi comme amuti frère santiment yi war a am ci ku am frère du nek ci mom te gu amul ay sentiment gënul ci góor ñi Iran amna na jamono dañ dan seetaan endo film endo, film endo. papa bolo bolo mama bolo bolo <laughs> booba ñun ñepp ay sentiment ay endo du ñu rey ganaar sax waxuma laa nit mbàkki ñëpp sentiment lañ amoon jigéen ñor tam sentiment jigéeni indo yi ñoom imaam Ali ndeysaan ay vers 1971 le film bi ma wax nii amoon ñaari couple suñ mbàkki ñaari couple couple benn bi ku góor ki moo faatu couple benn bi ku jigéen ki moo faatu ki góor ki muy faatu bàyyi na doom ju góor ki jigéen ki muy faatu bàyyi na doom ci jigéen ñaari xale yi xaritoo nag bëgg seen waajur yi takkante ndeysaan ñu leen di wayal papa bolo bolo mama bolo bolo waaw dafa xaw a gudd sax ne kon ma woyal leen ko ndeysaan waaw <laughs> waaye gis nga boobu sentiment yooyu lañu amoon mais bi nga xamee na léegi film yooyu tubaab bi daf ko changé ndax lan bëggul suñ sentiment yi lu mu ñoon di léegi kaboy gangster Rambo 2 Rambo ak itam enquête film enquête yooyu que la ñoon di léegi dangay ngay taal sa télé rek léegi cinéma amatu taal sa télé rek dugg jum dugg jum loolu loo ciy jànge mu jàgg ñun tam léegi ku mer rek génn sefet rek dugg sum wax nga fi léegi xale yi dee ci mbedd mi lu leen rey dugg sum santiment yee moo gën santiment yi ni ma ko seetloo nun ngeen ko seetloo su ne Xadija am moom juróom-benni doom ñeent yu jigéen ñett yu góor ñu jigéen ña dem nañ ba dugg néegu jigéen néegu sëy waaye ñu góor ñi nag ba ñuy xale lañ faatu ndeysaan ba xale lañ faatu dañoo mas a dem Màkka 2014 am ku ne ma waaw yonent bi ana ay waa këram ma ne ko ñi ngi fi mu ne waaw lu tax bu ñëw diñu wax fi mooy këram ma ne ko kon këram la ñu yem këram dañuy rek nun na yépp lu ko rek ku aj si màkka dem sax ci jàkk ja kër bi ngay dem ñu naan la kii mooy sutam kii mooy doomam kii mooy nangam su boobaa affaire bi day xaw a jàdd tuuti sew sewal ba am solo dom yu yépp ci ndaw lañ faatu ki ci mujj a faatu su ma juumul mooy Ibrahim bisub tabaski lañ xëy mu faatu ci bis ko yonent bi daal am ab dëj waaye tey la tabaski bu doon sunum réew boo fi jéggee dëj bi julli ji sa jabar tas sa goro yuuxu la maa la ko wax ndax nu sunum réew suñuy aada léegi day am yu may bañ tey fi ne ku sa jabar faatu nga taxaw defar ko Iran say bokk génn ci yow dee gisa fu ko la wax yal na nu yàlla yërëm ma tax moom Cheikh Alxaaj Malik lu ne dañ na ko ci xeex aada aada ne këcc rek yonent bi doomam faatu bisub tabaski tabaski gaa ngi nii dëj baa ngi nii waa màkk na commencé di ko ci ree nag la ko dese woon dem na kon du fi bàyyi barke du fi bàyyi dara sunu borom ci misaal jaale si jaxal ko ne ko inna aataynaaka al kawsar waaw <laughs> sigil ndigaale luy loolu mooy li ma la li ma jël tey li ma la jox ko ëpp sa doom jii ma jël li ma la jox li ma la jox ko ah fa salli li rabbika wanhar bàyyi fi dëj bi te dem julli ji soo delsee rendi sam xar lu ca tege tege ci inna ni aka képp koo xam ne ni nga def nii da koy sabooteeka ree huwal abtar moo nar a ñàkk barki mhm. boo demee tey Makka ka koo gënoon a ree ca reeya Abu Jahl wala Abu Lahab boo jox wax baax na boo demee ca kër buur bi féete la droite kaaba gi féete a gauche Safa ak Marwa toile di nga gis ni duus yi moo doon kër Abu Lahab léegi ay duus la xanaa ñàkk barke fa la yam inna shaani'aka huwal abtar moo tax nitug diine kenn du ko sabote ndax huwal abtar jee tax kenn du ko yuuxu kenn du ko desal ginnaaw Khadija am ak moom juróom benni doom xëy rek benn bis li ma doon wax léegi suñu Moustapha doon ko nettali Iran Khadija daa xëy na yonent bi dama am ak yow réunion bëgg Aboubacar fekke ko Omar fekke ko Ousmane fekke ko Aliou fekke ko réunion bi jot mu ne ko dénk naa diw nangami giléem dénk naa diw nangami xar dénk naa diw nangami nag am naa nangami terrain am naa nangami kër banque sàngam am naa fa compte banque sàngam am naa fa kont mu ne ko waaw mu ne ko loolu ma moom lépp nekk nag na ko tey damaa bëgg nga boole maag moom moom bëggatuma moom ñu may moom sallallahu alayhi wa sallam suñu yaay Xadija mu ne ko labbayk mu ne ko bëggatuma moom ñu may moom tey kay na ko tey da nga may booleeg li ma moom moom ah jeex na amatuma dara tey yonent bi ne ko tey naa la wan ne je suis pas un mooy du ma denc keneen mukk mu ñëw di mu yow da yàqu sa programme parce que nañ ma baal léeg-léeg nga ñaareel programme bi yàqu dëgg la di boo yeexee ñaareel programme bi day yàqu parce que léeg-léeg da ngay nopp sa sa aawo ngeen àndi daanu nga ko jóg ba expérience bi tàmbalee ñëw ah mu tax sunu borom bi wax ci wàllu googu mu ne fala tamiloo may li fa tadaruha kal muallaqa lan mooy muallaqa mooy bu leen def seen aawo yi ni kudd gu ñu wékk xam nga ñaari kudd ñoo am kudd gi jeq ceeb bi ak kudd gi lekk ceeb bi kudd gi jeq ceeb bi mooy kudd gu mag googu tudd aawo bu bu cilli tàngee moom lañu jël di ko ko jeqee mooy góor gi amagul expérience kudd googu lay soxla mooy aawo bis bu ceeb bi wàccee nag ba ñu ne leen ñu añ ñu bàyyi kudd googee moom ca waañ wa jël nag kudd gu ndaw gi nag di ko peeleel ndànk suñu borom ne loolu du ngor fa tazaruha kal muallaqa ker ba ma ko firee si defeem nag ca Dakar dama xëy rek Iran wàcc si rek fekk sama buntu kër gi yëpp fees ak jeeg kullu jeeg ak boisson jeegi koñ bi yépp ma ne lu xew ñu ne ma li nga doon wax léegi yàllaa ko wax ma leen moo ko wax kay ñu ne ñoo ko ñoo ko njukkale boisson yi ah, en tout cas aawo yi ñoo ñëwoon keroog ndax ci ñoom laa doon wax suñ jaay xadija noonu la def moo tax boo amee aawo dem ba expérience am sëñ Mbàkke ay 15 ans yooyu te ñaareeloo far ko bàyyi ndax boo ñaareelee léeg-léeg ki ngay nopp programme am bokkut ak ki nga yor ki nga yor yéen a ngi doon daanoo ko jóg ngay xoslu muy daba daaxe ngay xoslu muy daba daaxe ba dara taxaw nga fekk gone jigéen goo xam ne gi moom ni sa jabar mel moom melu ko xaw na def ay affaire ma ngay léttu ay léttam mi ngi ci li xew ci gone yi kooku bu ko sa bu ko sam xel nabee say jëf bu ko nabee nga am problème ndax danga naan ko dama laa bëgg denc soxna rek mu téléphoné aawo ne ko defarul maa ci sa kaw defarul maa ci sa kaw boo tax soo seetloo fi ne suñu réew mi noonu yu bari nu lay demee Iran waa ji day takk kim takk yàgg nañu kim ñaareele mu ngi door a ñëw te bokkuñu programme léegi nag kii day nuy si aawo aawo daf koy recevoir kii nuyoo si wut ab xulookat jigéen ju pànk ñëw ne ko salaamaaleykum aawa ñaaral moo lay nuyu si ak jekkaayam ak tagalam ak ni muy doxe nee na jasneer bi moo la ko nuyoo juróom fukki junni yi moo la ko nuyoo wax ba jeexal aawo it am na ko pànk moom tam mi ngi ci wetam daal dina ko jërëjëf Ah, awo dégg na li mu wax waaye nee na moom it moo ne rëjj te dëju gis nga xuloo boobu mooy tas diggante yi mbokk yi yàlla na jaam yàlla na kenn ak seen njaboot yàlla nañ gàmmu si bu déwénee yàlla bu kenn manqué ñu ngi lay ndokkeel ci sa bis bi laat la ci nguur gi daaxaa jóob fii la daan toog ak ñi mel ni moom daan fi toog dañoo sàngoo suuf nekkoon ñoo ngi fi yàlla na yàlla gën laa jàppale gën laa sàmm te gën noo jàppale gën noo sàmm man de léeg-léeg ma jaar Tiwaawan jaar ca kër ga léeg-léeg ma fekk la fa léeg-léeg duma la fa fekk waaye boo ma fa jaaree jaar fa defe naa sax sam boisson ba mang ci frigo ba ndax léeg-léeg ma jaar fa mu jox ma canette yu mag yoyu te lolu man munu mako nan bam jeex mom la koy denk mu bayiko fa waxna barki dem ci émission yi ne sama soxni seigne bakki daf may mere léeg-léeg parce que ma jeexal pojub ganar munu mako jeexal mune ma li jeerul togo ko ko togu am kon nag bu ma fa jaaree boisson yu mag yooyu ñu may jox mënumaa naan lépp ma guux ca dénk ko ko mu nga ma denc jërëjëf kon nag bu déwee ne yàlla nañ ñëw ñi nga xam ne noonuy jàppal ci organisation bii tàmbalee ci suñu mbokk Aline Badara Socé ba ci ku mujj ñëw ci mbooloo mi jaar ci DJ Abdou Guèye noonu la de Pape Guèye DJ Pape Guèye parce que senegal moom ku teg ñaari kaset rek tudd DJ ku dem ca rajo ba teg ca ñaari kaset rek tudd DJ moom tam DJ la tudd mbooleem ku fi ñëw te indi bakkaar yàlla na fi ruuse muy góor muy jigéen jataay yi buñ koy toog mbàkke dafa am malaaka yuy filme jataay yi filme jataay yi nga toogaat beneen ñu filme yow ma tëb la sarair ku seetaan jataay bu mel nii doo bëgg doo bëgg ñu zappe Mhm. waaja daa demoon ci jataay bu ab jataay dóor ca pooj ba ne suuy doom mu toog ak nag ay nit te booba kilifa la benn tele ca tele ya teg poojam boobee bi pooj bi ñëw nag dafa betti nit ñi fay tele bi du yomb dem ca télé ba ne leen bu leen tegati cassette bi ñu naa ah, droit d'auteur moo tax de lii nag duñ ko filmé ba yow ma tëb la saraayir yaakaaru mu ne danañ ci xaw a am kersa kon ku fi indi bàkkaar yàlla na raaf ñi fi nekk arfaan bëgg dem màkka yàlla ñu dem ci jàmm bàyyi fi jàmm fekk fañ jëm jàmm sëriñ si bëgguma dugg ci lim waaye noo ngi ñaanal ñëpp di sàkku ngeen ñaanal ñu xale góor yi fi nekk te denc guñ jabar yal na yàlla may leen fit bu ñu dencee jabar ñi fi am benn ti ñaareel la guñ yal na yàlla may leen fit bu ñu ñaareel jigéen ñi fi nekk te ragal wujj yàlla buñ gaaw a am wujj góor ñi fi nekk te bëgg ñaareel yàlla nañ gaaw ñaareel jigéen ñi fi nekk te bëgguñu wujj yàlla buñ gaaw a am wujj góor ñi fi nekk te bëgg ñaareel yàlla nañ gaawa ñaareel jafe-jafe ñi ci dëkk bi ci réew mi ci gox-goxaan yi yàlla na yàlla wis ci lépp ndox mu set ci barkeb borom guddi gi ci barkeb ñi ko daan tàntal ci barkeb ñi ko daan bindal di ko xamal nit ñi les caméramans jërëgéen jëf dam yàlla fay leen ndax yéen ak yéen ak Iran yéen a bokk mbuus ngi bëgg a yàgg waaw la tàmbalee ca mu indee xaw ma la xaw ma ba du waaw la tàmbale ba ba nu am bis ma séen ko ca kaw garab ga muy julli kon yéen ngeen les sécurités ñoom duñ la xool def sécurité waaw kay yàlla yàlla jàppale leen ndax yéen it am ngeen solo ci yu mel nii ndax yéenee tax nit ñi baj baj yeeg duggal ak génn bi yéen a koy sécuriser ba njam kepp ku ci nekk jël la nga war a jël yem fa nga war a yem mag ñu ne ci biir jataay bi te taaral jataay bi yàlla nañ ko taaral ay yoon yoon yoon sunu nelaw yi ñu fi toog yàlla na ko boroom bi soppi euh, ay nelaw ca aljanna yàlla na gàttal suñuy nelaw ci biir bàmmeel mu niir kàddu gàngoog Iran merci merci merci merci merci merci kon nag kàddu gaa ngoog yàlla na yàlla boole dimbali yàlla nañ dund weer su déwén yàlla na def jàmm ci dëkk bi def ko ci dëkk yu wër ma jeexal ci nag góor gii toog nii te sant mbeng jógee tiwaawan ñoo jenn daara iran góor gii toog nii sant te jóge tiwaawan ñoo bokkoon jenn daara bàyyi alaaji màggat jéey moo nu doon jàngal ci sunu magi daar lañu bokkoon tiwaawan gii la jóge yàlla na yàlla gën laa sàmm tafsir mbeng la tudd waaye si nag ko tamsiir waaye tamsiir kenn tudd ko tafsir lañ tudd tafsir la tudd sant mbeng ñu sant mbeng na dañoo gaaw a xeex waaye moom xëy na bokk ci yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ana jërëjëf Oustaz Alioune Sall kontaan nañ trop trop trop trop li nga waxtaan ren moom masoo koo waxtaan maasha allahu sa waxtaan wi neex na dëppoo naa jamono xale yi dégg nañ ko kenn nelawul ñépp a ko jël gaa yi nga xam ne bu dara commencé sax fekk nañu nelaw waaye kenn nelawul fi nga do fi nga dogee sax waxtaan taxul ñu doyal waaye jëf kontaan nañ trop ñu ngi gërëm suñ jigéen bale soxna joor eh, lii lépp moo ko fi def matériel bi yëpp yépp yëpp yëpp ak tànt beeg décoration yi lépp moo ko fi def muy soxna sële fa tabaarakallaahu ak jigéen ñi mu àndal ci liggéey bi yëpp ñu ngi leen di sant ni ko jaawara waxee rek ne xajul ci guddi gi ñu bëgg a sant xajul ci guddi gi waaye dañuy bàyyi ba ca ndokkeel ga wala bañ am occasion bu yaatu ñu gërëm leen waaye gërëm nañu ñëpp ñoom Safiyatu Baaji ñoom Amit Daabo ñoom Ayda Ñang ñëpp ñëpp ñëpp Ayda Mbay ñëpp sant nañ leen waaw sant nañ ñëpp ñëpp ñëpp ak Faat Njaay Eh, ak ñi mu àndal ñëpp fa tabaarakallaahu ak Faat Ja eh, xalimat saad ya ñoom ñëpp sant nañ leen xanaa ñu grand sëriñ rek eh, mu sànni li muy sànni bu ko defee rek ñu ñu ñaan incha allah jërëjëf Cheikh Ibrahim yal na yàlla fay ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ni bii mooy borom guddi gi fa tabarakallahu di la delloo sant ak ngërëm ndax ñun taxawaay lañu amoon mooy dem ak dikk waaye financement bu war ci gàmm gi rek bajaan taxawu nga ko jëf nga ko ba mu mat sëkk kon yal na yàlla gën laa fay yal na yàlla gën a fëgg sa bopp nga gën a am kattan ba mission bi nga bëgg ci diine islaam fa nga ko bëgg a jëme yal na la yàlla dimbali ba nga yeggale ko fa ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye maas wallahu arsalahu lil alamina udan wa rahmatan ismada jëslun bila wahami dama guddee wallahu arsalahu lil alamina هدى ورحمة اسم داجس للولا والدنا على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما أجسن الله خيانا ولا أرسله للعالمين هدى ورحمة ولكن رسول الله وخاتم النبيين على نبي وعلى نبي seydina adama mooy yaaram bi juddoo makka tara fara du denc ko medina turu no war mo sang bang madina وهل سهل إني رسول الله إليكم متصدقا لما بين يدي من التوراة ومفسرا يأتي لما زكى بالبينات قالوا هذا شأن مبين ومن أسلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى للإسلام يريد أجسد الأخوي كاكا إذكار الأخد تمراتني يقول أقر بسميرانك أنت الخاتم نزول على نبي وعلي أين الحجاب ak mboolem saxaaba yi Chérif ñu koy ziyaar ak sa bopp. mi ngi ko si loxo yi ca kaw Xadiija tondo wa do Aliyu wa bono ha bisatin wa man bi lahawati yi osmanu wa wa wa wa ومثلهم في الانجيل كالذي اخرج سكره فعاشره وسنعرض يلا بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو خمسين سعيد سيدنا محمد نجول سنين مصطفى بنيني هو سوى عليه سلام ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا سر سر الله سر وجوده sallallahu alayhi wa sallam waatante bi ana ñu bëgg Seydina Muhammad wa sir sir la sir jildihi ah waaw yi bëgg yonent bi xanaa gaañi dañuy nalaw yeewu leen waayi wa sir sir la sir jildihi mas ki may waxal mooy Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sir sir la sir jildihi Abdullahi ko jur Abdullahi Abdul Muttalib wasir sir laay siru jildi bu la laajee kan mooy Seydina Muhammad neel Abdoulaye baayam wasir sir laay siru jildi Abdoulaye Abdoul Moutalib ko jur Abdoul Moutalib Xaasim wasir sir laay siru jildi waajuram wu jigéen mi ngi tudd Aminatu bint Wahbin wasir sir laay siru jildi Oustaz Alioune Sall wax na ko sànq moom Seydina Muhammadin wasir sir laay siru jildi ah Iran ak Cheikh Ibrahima Ibrahima Badiane ki nga tàntal na ku yàlla bind mooy sa sang. wa siru siru laay siru judihi. ah oustaz yal na yàlla fay ci barke yonent yàlla Muhammad. wa siru siru laay siru judihi. 63 ans la dund moom Seydina Muhammad xëy yàlla jël ko. wa siru siru laay siru judihi. yàgg na noo dégg la sànq xaatama nabi ina mooy ku ma tali yeneen tii. wa siru siru laay وجوده وإمام المرسلين mooy seen njiit moom moom borom bi wa taala هو سر سر الله سر وجوده yàlla ko lu ma bind yow yonent bi yaa ma ci gënal هو سر سر الله سر وجوده moo tax ñu toog ci tànt bi li Cheikh Ibrahima wax sànq day dëggal هو سر سر الله سر وجوده ilaa nee na képp ku am aajo na nga ko roof ci digg tànt bi ñaan ko sa borom ndax da ngeen a toog ci tànt bi ba fajar di bëgg a xar. wa siru siru laay siru wujudi. kon aju boo boo ko jëkkee sa borom tabaaraka wa taala yàlla defal la ko. wa siru siru laay siru wujudi. Moussa Aliou Sall nee na bu waxtu bi jotee malaayka yi dañuy tàgg dañuy filmer tataay bi. wa siru siru laay siru wujudi. dëgg la malaaykullaahi laa tultu min al kurama. wa siru siru laay siru wujudi. ku fadli jëm hukumu Tuubaa li man xadaru. wa siru siru laay. laay siru juudihi malaayika yi filmé ni ñu ngi taxaw ci digg tànt bi di filmé wa sir sir laay siru juudihi nan nag oustaz la vingt mai Cheikh Ibrahima Badiane di ir andaw wa sir sir laay siru juudihi moo amal ca promat de promat de promat ba nga xamante ni moo di Thiès wa sir sir laay siru juudihi promenade di Thiès waa ma nga fay amal guddi juddug yonent bi wa sir sir laay وجوده كي متانتل كو يالا بيند موي سا سانغ وسر سر لا سر وجوده يغلو ني نجول ماك غودي غمو جودو وسر سر لا سر وجوده جيري جف بروم جار لي يالا يالا فاي لا وسر سر لا سر وجوده كي ابراهيم ياغ نان لا ديك نكوي فري تنبه وسر سر لا سر وجوده ان نور الختم ليلكم وسر سر لا سر وجوده قد ألف في عيمة من أسر الهيمين وسر سر الله سر وجوده أنا عترو باخر خير البعور وعف وسر سر الله سر وجوده نان با يك نغني غودي كي سيدنا محمد جودو وسر سر الله سر وجوده كاين دا ترافيرسي تي ديغ عال بيم تي تيل وسر سر الله سر وجوده ياك نانيو ديغ شيخ ابراهيم ديكو واخ وسر سر الله سر وجوده ابدا يالنا يالا فاي لا سر سر الله ay siru judi bu doon bi ñu ngi pay kub wa sir sir laay siru judi guddi gi ñol màkk nettali wa sir sir laay siru judi dégg naa sama sëriñ Cheikh Ibrahima ba daan mu koy nettali wa sir sir laay siru judi gaynde daa dugg ci digg àll bi taxaw ci front bi jàkkaarlu till wa sir sir laay siru judi asan tiglit gaynde di xool till ba mu yàgg till bëgg dugg ñag bi ji ngay ne xool tilli ba mu yàgg ni ko bul daw xam te xam nga li xew wa sir sir laay siru judi tey du ma la def dara walidal Mustafa Muhammad juddu la wa sir sir laay siru judi korog jinax ak muus doon doon akolatante wa sir sir laay siru judi jinax naan muus lan moo xew ba nga may def nii tey di ma fon gauche ak droite wa sir sir laay siru judi muus naan ko jinax xanaa yëgu la ni walidal Mustafa wa sir sir laay siru judi ki juddu tey mooy mooy ki yàlla bind mooy ki nga xam ne moo gën ci jaam ñi. wa sir sir laay sir judi. ki nga xamante ni bi mooy assurance doomu aadama yi. wa sir sir laay sir judi. bu yàlla jëlee siraat teg ko ci kaw jahannama. wa sir sir laay sir judi. muy bis boo xam ne yow ma yajma'akum li yawmil jamaa'i. wa sir sir laay sir judi. zalika yawmu taqaabuni. wa sir sir laay sir judi. lu doon bisu boo xamante ni bi bisu raj raj loola nga. wa sir sir laay sir وجوده وسر سر الله سر وجوده وسر سر الله سر وجوده وسر سر الله سر وجوده شيخ الخديم نينا بوما جيلي سما خليما عرس جاي كورسو جاي وسر سر الله سر وجوده مامو سيري شيخ غاينا فاطمه مامو سيري مباكي سخنا لو وسر سر الله سر وجوده شيخ الخديم moo jàkkaarloog njol makka wa sir sir laay sir jidi naan ko huwa akmalul wara wa sir sir laay sir jidi lu yàlla bind yaa ci gën a mat yow Seydina Muhammad wa sir sir laay sir jidi yaay ndabal teraanga yi yow njol makka wa sir sir laay sir jidi huwa akmalul wara xalxan wa xul wa sir sir laay sir jidi sawaaji nee na ko huwa yow rasulillahi wa sir sir laay sir jidi akmalul wara lu yàlla bind yaa ci gën نما هو سر سر الله سر جودي خل خن تبين وخل خن أكتكو هو سر سر الله سر جودي وي أسرف الخلق سيد الأدناني هو سر سر الله سر جودي موم لما نيب عملو نيو عملو بنيو عملو تبارك نجول مكة هو سر سر الله سر جودي بهنا لما نال رجال مراتبا هو سر سر الله سر جودي من الملك العلام جلت عن العصر هو سر سر الله سر وجودي am lépp ñu ko amee ci barke Seydina Muhammad huwa sir sir laay sir judi moo tax Cheikh Ibrahim yàlla may na la ndam de huwa sir sir laay sir judi li noon yu bëggoon bu amoon tey ji lii du fi taxaw huwa sir sir laay sir judi waaye yàlla mi ngi lay wan ni yow la àndal huwa sir sir laay sir judi kon walaaw yaxsimuka min annaasi huwa sir sir laay sir judi walaaw yaxsimuka min annaasi la waxoon yoon ci yàlla Muhammad huwa sir sir laay sir judi kon Muhammad doxalal doxalal yàlla ko yónni. wa sir sir laay sir judi. kon sunu maam Seex Alxaaji Malik ni bu dul woon ak leer gi ñool ma kalaar. wa sir sir laay sir judi. ndaj maam Adama mooy maamu Seydina Muhammad. wa sir sir laay sir judi. Adama mooy Abul Basar moom la yàlla njëkk a bind ci mbindeef. wa sir sir laay sir judi. is qulnaa lil malaa'ikati usjudu li Adama. wa sir sir laay sir judi. fasajadu illaa Ibliisa abaa wastakbara. wa sir sir لا يصير جود وكان من الكافرين وسرسر لا يصير جود وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وسرسر لا يصير جود وكلا منها ركدا حيث شئتما وسرسر لا يصير جود وإذا سعيد نور خمولي بروبلم ولا تقربا هذه الشجرة وسرسر لا يصير جود ولا الغرب جي آدم لا الغرب جي وسرسر لا يصير جود سو خولي ديغنت آدم ak Seydina Muhammad nga xam ni yonent Yàlla Muhammad du moroomam sir sir laay siru judi ba mu tooñee tooñ bi ne woon na ko nag arrièreal sir sir laay siru judi xool malaayka mi xool yàlla ba mu yàgg wa sir sir ci barke Seydina Muhammad wa sir sir laay siru judi yàlla ni ko yaa rëy tooñ yow Adama tarafet lay wa sir sir laay siru judi yàlla ni ko Adama doxal baal naa la ci barke Seydina Muhammad wa sir sir laay siru judi kon xam nga ni njool Makka mooy maamu Adama mooy sir sir laay sir judi waaye nag am na cër boo xam ne yàlla defal na ko moom Seydina Muhammad wa sir sir laay sir judi mu ne yàlla ni ko nan nga xamee Muhammad te juddoogul wa sir sir laay sir judi ko benn fan bi maam àjjana gisuma benn booli mbaa plat wa sir sir laay sir judi mbaa kuddu mbaa fourchette miiri àjjana yi ak rido yi wa sir sir laay sir judi Serif sa turu maam lañ ci lëkkaleeg turu yàlla wa sir sir laay sir judi muy laa ilaha illa allah محمد رسول الله هو سر سر الله سر وجودي ولا إله إلا الله محمد رسول الله هو سر سر الله سر وجودي سي إبراهيم نجل أي جامبار تودي لين كوديكي هو سر سر الله سر وجودي نينا تسوبة دفجل بن فنكال مهم إبراهيم هو سر سر الله سر وجودي تيالا أبن بوخون سيدنا محمد هو سر سر الله سر وجودي جرجف سونا جوريال يالا فاي هو سر سر الله سر وجودي يالا جاكار لوجي yonent bi ni ko ey àndal ak maam Ibrahim sir sir laay siru judi toppal si diine bay Ibrahim joo bëggeem normal wa sir sir laay siru judi ci Ibrahim jël sunu maam Ibrahim dugal ko ci biir bis bi sir sir laay sir sir laay siru judi bi kan la wa sir sir laay siru judi maam Saarata wa sir sir laay sir wujudi mais àndoon ak maam Ibrahim ci mission bi. wa sir sir laay sir wujudi. kooku Cheikh Ibrahim boole na ko ci biir marraine yi. wa sir sir laay sir wujudi. kon gàmm gi li ngay jàpp ba jinu kooba la. wa sir sir laay sir wujudi. at mu nekk ak ki ñu koy duppee. wa sir sir laay sir wujudi. at mu nekk gàmm gi ak ki ñu koy tuddee. wa sir sir laay sir wujudi. maam Ibrahim moo jàkkaarloo wala boromam. wa sir sir laay. sir judi mun la laajee gën giir moo tabax kaaba gi maam Ibrahim ca la bokk wa sir sir laay sir judi usal wax naa la ko démb wa azin fi naas bil hajji wa sir sir laay sir judi wa azin fi naas bil hajji yaatuuka rijaalan wa sir sir laay sir judi wa ala kulli daabirin yaatiina min kulli fajjin amiiqin saaliw jërëjëf wa sir sir laay sir judi kooku tunu maam Ibrahim wa sir sir laay sir judi moom la sànni woon ca safara sa toj si ibrahim ni bardan jammu firi consulateur wa wa salaaman jayn mo firi li frigo وسر سر لاي سر وجودي مام ابراهيم جارناك فوق كيغا خامني مودي نمروز وسر سر لاي سر وجودي كوكو نك رن جي سي باراي لا بوك وسر سر لاي سر وجودي ولا ني جيل بن جيجين بو خامني جيجين بو جامبار وسر سر لاي سر وجودي موتاخ يين جيجين ني يالا ياغ ngeen doon jàmbaar وسر سر لاي سر وجودي يينا كونغي سيدنا محمد بمسيون بي مات وسر سر لاي سر وجودي خديجة سكنت بالقلب خائلة وسرسر لا يسرج لم يسك الله في دارين لا تكمي وسرسر لا يسرج شي إبراهيم ما كنت غام خليفة كيري وسرسر لا يسرج مني ببتيجي خديجة تكندقم وسرسر لا يسرج دون بوتي بيركر تكندقم وسرسر لا يسرج واي بكل جوتي خديجة دون سخنسي وسرسر لا يسرج شي إبراهيم دقنن مني خديجة جناو سيدنا محمد وسر سر لا يسر وجودي برك بيونتي بجاخلي جغارو خراق وسر سر لا يسر وجودي بيونتي بجاخلي جبريل مقو وسر سر لا يسر وجودي اقرا باسم ربك الذي خلق وسر سر لا يسر وجودي خلق الانسان من خلق وسر سر لا يسر وجودي اقرا وربك الاكرم وسر سر لا يسر وجودي الذي علم بالعلم علم علم الانسان ما لم يعلم وسر سر لا سر وجودي جورو بيكو بيكو جبريل مبوكي نيكو جانغال نول مكني مانا بقاريهم وسر سر لا سر وجودي خمول لي جانغ نا خاسكاني مبوك خامنيو كو وسر سر لا سر وجودي جورو بيمو نيوي فك خديجه بنت خويلي سي ديغ كيرغي وسر سر لا سر وجودي سيري سمام رك دا جاغو رك دوك سي بير كيرغي باب بشير وسر سر لا سر وجودي نانكو زميلوني سانغ ما يو خديجه وسر سر لا laay siruju zamilu ni sang ma xadisa zamilu ni sang ma wa sir sir laay siruju zamilu ni sang ma tarfau nga yëkkati umami sama njàqare wa sir sir laay siruju xadija pokkati musóor mi jàkkaarloog yonent yàlla Muhammad wa sir sir laay siruju waaw lan moo dikkal sama borom kër gi tey wa sir sir laay siruju xadija pokkati musóor gi jàkkaarloog njol Makka wa sir sir laay siruju ada bàyyi nga ni ci am malaaka du gis awra wa sir sir laay sir wujudi ndax malaayika laa yaxsuuna amuñu soxla wa sir sir laay sir wujudi malaaka ne fàllu taxawee rek noonu lay taxawee moom wa sir sir laay sir wujudi malaaka mi bi yaay Xadija dindee musóor gi wa sir sir laay sir wujudi mu dem na man dem na gisatuma ko خديجه جلاته كول كي تك سي كاو بوبي رك خاد ملائكه ملك الموت دا جبريل نيوات وسير سير لا يسير وجودي سما بروم كير بي امنا لو كوي ديكل ني وسير سير لا يسير وجودي سي ابراهيم مود باكو ديغ موني خديجه خديجه تك نيغم وسير سير لا يسير وجودي سي ابراهيم نينا خديجه تك نيغم ген كير كي وسير سير لا يسير وجودي سيتي بن سيت كات بو تود ورخاتو ابن نوفل وسير سير لا يسير وجودي مود ورخاتو ابن نوفل مو سيتال Khadija. wa sir sir laay siru judi. ni mu seetalee Khadija ni ko sa borom kër mooy Muhammad. wa sir sir laay siru judi. gille mu ko sa borom kër mooy Seydina Muhammad. wa sir sir laay siru judi. mu ne ko ah, lu koy dikkal nag la daan yàlla Moussa. wa sir sir laay siru judi. na musu Moussa Zaki fëf tëkki mi. wa sir sir laay siru judi. am na mbir moo xam ni day dikkal sa borom kër yonent lay doon ëllëg. wa sir sir laay siru judi. xaatamu nubuwa boo xam ne dana ko dikkal moom it Seydina Muhammad huwa sirru sirrullaahi sirru wujudi waaye na nga yëg ni waa dëkk bii mu gën a bëgg fii mu juddoo yaroo fi dana ko génn huwa sirru sirrullaahi sirru wujudi si Ibrahim nee na sog boobu moo jàpp Xadija ba Xadija faat huwa sirru sirrullaahi sirru wujudi Xadija xëy woon ginnaaw Seydina Muhammad huwa sirru sirrullaahi sirru wujudi yàlla yàlla yàlla yóbbu ko moom Xadija huwa sirru sirrullaahi sirru wujudi bi jaaxle loolu xamul fu mu jëm هو سر سر الله سر جودي يلا نكو سما ديغنتك يو دوم انترميدير هو سر سر الله سر جودي بخل فاستع بما تؤمر يقل المشيون بي هو سر سر الله سر جودي يا يونيتي بخي بديك اليوم اكملت لكم دينكم هو سر سر الله سر جودي واتممتم عليكم نعمتي ورديت لكم اسلام دينا هو سر سر الله سر جودي بخي داو داو المشيون بي يلا نكو سما مشيون متنا هو سر سر الله سر جودي وينك سي ابراهيم day fàttaliku saxaaba yi mu daan àndal. wa sir sir laay siru juudi. Aboubacar Sadiq mi nga xam ne fu ñol Makka jëlee pee Ababacar deux. wa sir sir laay siru juudi. Ababacar ànd na ak Seydina Mouhamad ba ca Xuntuma. wa sir sir laay siru juudi. ñol Makka ngay gàddaay war a génn Makkatal Mukarram. wa sir sir laay siru juudi. yàlla ni ko yow sama waa ji da ngay génn Makka jëmal Medinatul Munawwara. wa sir sir laay siru juudi. madinatu wa sir sir laay sir wujudi loolu mag xëy war a gàddaayu jëm seeti Aboubacar Saddiq wa sir sir laay sir wujudi ah bu ñu fàtte ne nag Aboubacar Saddiq ci parrain yi la bokk wa sir sir laay sir wujudi alaaji ngañ loolu a gàddaay andi jëg Aboubacar wa sir sir laay sir wujudi Cheikh Ibrahim na Iran nee na bi ab yonent bi ci naaju tàng jër wa sir sir laay sir wujudi mu ni ko ah Aboubacar seen góor yi ci añukaay bi. huwa siru siru laay siru judi. ni ko sang bi doxee gaw naajalu xew. huwa siru siru sir siru judi. mu ni ko ndigal jib na yàlla nee na naa génn Makka jëm Madinatul Munawwar. huwa siru siru laay siru judi. moo tax xarit dëgg-dëgg day jàpp nitam. wa sir sir laay siru judi dëgg dëgg dëgg day jàpp nitam ci mu nekkee ci ay circonstance wa sir sir laay siru judi Sénégal fii gisuma luñ fi war a daw luñ fi ñor bañ koy màcc wa sir sir laay siru judi moo tax boo amee sa xarit bu nekk ci circonstance àndal ak moom wa sir sir laay siru judi Ibrahim nee na Serigne Touba bind addurru wa wa sir sir laay siru judi wa laysa min al bidaani wala suudaani wa sir sir laay sir wujudi njëriñ wala lor kenn rek ko muy jalla jalla lu waada kama wa sir sir laay sir wujudi Abubakar seen Seydina Muhammad jug añukaay bi wa sir sir laay sir wujudi mo xarit doxe nga naaj wu tàng jéeru lu xew wa sir sir laay sir wujudi ko yàlla nee na naa génn Makka jëm Medinatul wa sir sir laay sir moo tax nee ab dëkk bu ñu ëmbee ëmb génn la dëkk daal bu ñu ëmbee ëmb génn la dëkk ngi la xaar huwa sir sir laay siru judi waa Makka génne Seydina Muhammad huwa sir sir laay waa Medinatul Munawwara juróom-ñetti fan teeru huwa la Aboubacar Cheikh Ibrahim nee na keroog la Aboubacar Sadiq jug huwa sir sir laay siru judi gileem gu mag wa sir sir laay siru judi. li ko waral ci kii ma war ci kii ñu génn dëkk bi. wa sir sir laay siru judi. moo la fu Ndiol Mack nekkee pee Ababacar nekk na fa deux. wa ci biir xuttu mi moo ko Aboubacar Saddiq. wa daanu yulub ci biir kàmb gi gis kàmb gi am ay pax moom pax mi. wa sir sir laay mi mu soloon di ko xottate. wa laay siru judi. di sànci pax yi di sànci pax yi ba mu des benn pax. wa siru siru laay siru judi. Abubakar ni nag mbubb mi jeex na aw ma lu ma ko saaña xaaral ma duur ci sama pooj bi. wa siru siru laay siru judi. Abubakar ak Seydina Muhammad ñu yonent bi yegsil nag. wa siru siru laay siru judi. loolu mag dugg ci biir kàmb gi rek dal di nelaw. wa siru siru laay siru judi. waaw posé woon nañu question Cheikh Ibrahima ni ko kan moo leen doon indil lekk. yaysir wujudi posé nañu question Iran ni ko yonent bi ak Ababacar bu ñu jógee ci biir xutt mi wa sir sir laysir wujudi kan moo leen doon indi lekk Iran ni leen aba ah, ki nga xamante ni bi mooy doomu Aboubacar wa sir sir laysir wujudi ñu ne mu tudd mu ne Asma bunti Aboubacarin wa sir sir laysir na Asma moo doon gàddu bool bi di ko indi wa sir sir laysir wujudi añak réer rek nekk yëpp Asma ko indi ci biir kër gi الله سر وجودي dafa toog fa ab diir jaan ju mag génn daal di matt Aboubacar Sadiq wa sir sir laay sir wujudi ko dama bëgg ziyaare Seydina Mouhamad nga bëgg maa téye wa sir sir laay sir wujudi mu ne ñaari junni at yu manqué juróom fukk ngi ni maa ngi toog ci biir kàmb gi wa sir sir laay sir wujudi ngir bëgg ziyaare ki nga xam ne ku yàlla bind mooy sa sang wa sir sir laay sir wujudi ngir bëgg ngir bëgg ziyaare ki nga xam ne bu yàlla bindee àdduna àdduna moo tax laay siru judi. bu yàlla bindee safara kaw ak suuf moo tax. wa siru siru laay siru judi. ëllëg yomal xiyaam bu jàmm ñëpp naree dekki kenn nag kenn njëkk a dekki mooy Seydina Muhammad. wa siru siru laay siru judi. mooy jékki-jékki yow Madinatul Munawwar. wa siru siru laay siru judi. moom yonent bi yéenam ya daa sëq. wa siru siru laay siru judi. bu tam ya daa mel ni bëti bànjooli liy weex weex tàll liy ñuul ñuul kuk. wa siru siru laay siru judi. boo xoolee xar kanamam gi mu gën a weex li nga xam ne moo di pëpalin wa sir siru laay siru judi bu la jol màkk nuyoo loxo mi moo gën a nooy wuteen wa sir siru laay siru judi tànk bàyyi woo moom Seydina Mouhamadou bàyyi jàmmalante bi wa sir siru laay siru judi kooku nag mooy sangu àdduna ak naasu xurbujan isaabu isu wa a judi bu ko defee nag tabaarakallaahu xaaji maas macha allah yal na yàlla fay yal na yàlla barke waaye tàccu leen ma waaye jàmbaar laa Cheikh Ibrahim yal na yàlla fay la kontaan nañu xol yépp sedd na ci guddi gu réy gii nga xamante bi tuddee nga ko daj depp gi tuddee nga ko ki nga xam ni mooy sangu àdduna ak alaxira mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon guddi gu toll nii ci barab bii nga xam ni miin na lu ne ci caaxaan miin na lu ne ci barab bii ci caaxaan nga ñëw taxawal fi lu toll nii Badiane yalna yalla yàlla gën la fay yalna na yàlla gën la barkel ci barki sayyidina Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. to tudde ko kenn kuy dul fëggoo bureau président yi fogo bureau ministre yi fogo bureau directeur yi fëggoo bureau ñi man dara déedéet agi la wax nga ni bayina guddigi ak yalla bayina ko borom guddigi mo taxit ñom ñi mom guddigi sot nañu ba nga yek ni sot nañu yal yàlla gën laa fay wolof nag nee na kuy daj lu ne te dajale woo dem ba dajatoo tey dajale ñàkkul koo dajal xam nga Cheikh Ibrahim kan la dajal dëgg dëgg te yonent bi moo ne woon aleykum bi siddiqi na ngeen sax ci dëgg fay na siddaxaan ka dëgg yahdi ilal birra daf lay jëme ci mbaax waaye fa innal birra ndaka mbaax yahdi ilal janna ajjana la la jëmee kon Cheikh Ibrahim xool yëpp sedd na kontaan nañu bajaan yal yàlla gën laa sàmm ñun ñii di say rakk bàyyi nga ñu xel ñun ñii di say rakk dimbali nga ñu ñun ñii di say rakk yiir ñu ñun say rakk uuf nga ñu nee naa yow nee naa barki démb ci précise ma ni Iran du firikat bu mag buy noggatu firikat yu ndaw yi firikat yu ndaw yépp a ko ñeme ndax jikkoom ju rafet ak yaatalam ak ñeewante gi nga xam ni moom la ñeewante njaboot kon bajaan yal na la yàlla gën a sàmm bu baax mboolem loo bëgg ci diine ji ngir mottali mission bi yal na la yàlla dimbali ba nga yeggali jàmm ak sa sago ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal oustaz Alioune Sall sa grand frère xawma sa petit frère waaw sa grand frère kon oustaz yow it xool yëpp sedd na bëgg nañu kontaan nañu yàlla na yàlla gën a barkeel yow it ku bàyyi xel seen nit nga ku mën a taxawu seen nit nga bi ngeen nuyoon teg Iran ba saran xooñ tuuru sama yaram daa daw dama xam ne oustaz ma kii moo man nitam kon sàll yàlla na yàlla gën laa sàmm yàq sa mbokk mu baax mi nga àndal di alxaaji Mbàkke si la nga xamante ni bii sa seex la sa wóllëre la sa lépp la waaye fàttewuñu oustaz Assane Diop mi nga xamante ni bii fa tubaarakallahu mi ngi ci jataay bi waaye ñu nuyu bu baax oustaz Arona Ba mi nga xamante ni bii fa tubaarakallahu sunu mag la di sunu soppe di sunu xarit di borom xam-xam waaye di koo xamante ni bii muy borom xam-xam bu laabiir moom oustaz Alhaaji oustaz Arona di soppey Iran di wëllëreem di léppam kon oustaz Arona yal na yàlla gën laa sàmm yal na yàlla gën a guddal fan wi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam فتبارك الله استاذ سعيد نور زيار نان واي شريف نيغ زياره بو باخ بيس بيغا خامتيني بي موي سبيسو مام غا خامتيني بي شي ابراهيم ووتيلول كين كودول سا فتبارك الله غا خامتيني بي سا مام موي محمد صلى الله عليه وسلم مولم كو في استاذ عبد العزيز استاذ تبارك الله باب بشير مباي نيوم نيب بيك نانيو كونتان نانيو خولي سيتنا يالنا يالا فاي شي ابراهيم يالنا يالا گن لا waaye fàttewuñu suñu média bi nga xamante ni bi teew nañ fi waaye rawatina Thiès Prestige ki nga xamante ne bi def nañ ko direct fa tubaarakallahu ba ñu tëdd ci lal yi nga xam ne mënuñoo jug fi ñu toog di ko seetaan gàmmu gi en direct kon Pape Doumbia ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal suñu borom moom it yal na yàlla gën ko sàmm waaye Iran yal na yàlla gën a guddal saw fan ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu jox ki nga xamante ni bii mooy sunu magu daara ndax ay njaboot lañu am na loo xam ne bu xasee ba jub Cheikh Ibrahim moo ci war a décider incha allahu bajan kaddu gaa ngi noonu jërëjëf. ah fi mu na. te xam naa ni ñu jëm fu sori am na fi ak ñu jëm fu jege waaye dañoo wax ni shérif mii fi toog di sëtu yonent bi sallallahu dañu koy laajal hëddiya maamam kon kenn ku nekk ci ñun ti nga man ko ti yàlla rekk tax ñu dajale àddiya maamam jox ko ko ndax itam maamam ma moom guddi gi gannaaw ma moom guddi gi nag ti bu fi maamam toogoon ni jox ko far mu ngi mel ni moo fi toog kon nag nañ ko jox shérif kon kenn ku nekk na joxe àddiyaam su ko defee nag ñaan euh, ba yàlla dogalati ko nag waaw ah, xam naa ne daal ñi du am daal am na waaw ñi du am am na waaw ñi du am am na waaw daal laa wax am na ñinoon du am ba journaliste bii laaj ma ko ne ma nee nañ dootoo tànt Thiès ma ne ko ay fen la de bañ yegg ca waaye defe naa am na de waaw ku du am am na fa tabaarakallaahu ko defee ngeen laajal ko addiya ñu doog ñaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf wax leen amin oustaz a ngi ñaan de ربنا اغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اشف مرضانا واقض وارحم موتانا اللهم ان كانوا مسلمين فاسد لسانهم وان كانوا مسيئين فتجعل سيئاتهم اللهم اكرم نسلهم دخلهم عبد سليل فقير خاشع وجل سوج سين عاثف يا الله يا الله إليك مد اليد رجاء مغفرة هب لي مسامحة يا الله يا الله تموج البحر بحر الذنب يا ثقتي وإن ربي خفت الخرق يا الله وما السفينة ترجى خير رحمتك العثمى العميمة كل الخلق يا الله نسكو إلى الله حاجنا ليس يرفعها ذواك يا ربنا يا الله يا الله اللهم صل على سيدنا محمد متقم am na ko fi waddal caabi boo ànd ak coupe ongle nañ ko ku ko ku ko waddal rek na ñëw ci man maas waa police sécurité bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla